onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeent ñi yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision wala fajri ñu dikkaat ak yéen ci seen émission diine ak jamono diine ak jamono dikkaat ci loo xam ne moom la Sénégal yëpp def waxtaan te mooy itam mooy élection législative nga xam ne tey jii seen waxtaan mënatu kaa weesu ndax itam dañuy tiit waxtu bi ñu ko war a def ñu weesu ko te fekk dara du pare loolu itam di ko waral mooy coow lee bëri lool ba nit ñi itam fàtte ne am na lu war a jiitu te loolu dafa mel ni moom lañu gën a fàtte te mooy fexe ba ñu am ci jumtuwaay ak ci taxawaay ak ci waxtoom lu mën a tax élection yi am ba tax ñu bëri am ci jiixi jaaxanaan ndax ndax élection sax dina mën a te fee xej ndax dina mën a tee am leneen la ca yokku nag ba tiital ñu bëri mooy ñu seen xam-xam màcc ci mbir ñu ci daan liggéey ci njalbeen bi léegi di ci mel ni njaga si la génne benn bataaxal boo xamante ne mu ngi cay yëgle yëf yi waroon nañ ci mën a sàkku ñu toxal ko ba jëm ci weeru septembre loolu itam mu mel ni toxal ba mën a juraat yeneen toxal ndax ñu ngay jege ji ay tabaski ñu nga jege si ay gamoo ki màggal ba nga xam ne élection yi daal doon nañ yoo xam ne ci leen ñu gën a bëri jeexi jaaxa rawatina ci waxtu bi ndax itam ñëpp a ngi indi ay xalaat di ko joglante ci mbir mi te waxtu bi xaarul te itam liñ ci waroon waxtaanee ca gannaaw ba léegi dafa mel dañ ko bàyyi ba heure bi ñu bugg ko dajale waxtaane ko kon loolu nekkatul mbiru yoon waaye bi juboo lay doon ndax juboo mën na cee am ndax gi bari na trop te itam waxtu baa ngi dem loolu tax tey ay nit ñu bëri jàpp na mbir mi lu yéeme la ndax carte yi ñu daan wax nit ñaa ngi bindu waaye am na ñu bindoogul am ñu bindu jotaguñ seeni carte kañ lañ koy jot ak bu amee coow ak erreur kañ lañ koy defaraat te itam ñu ne carte d'identité yi ñu woote loon ci woote woon ci référendum ñu ngi fi ba léegi ndax loolu woote woon référendum wootewul la ca des ndax duñ mujj delluwaat ci loolu fukki réew ak juróom yi nekk CEDEAO ñu ne ñoom ñëpp dañ leen waxoon carte biométrique waaye Sénégal moo ci taxaw am ci pas-pas gu toll nii boppam coono gu toll noonu loolu yëpp ay laaj la yoo xamante ne dañ ko fa yéene tey waxtaanee gas ko ak suñu gan yi nga xamante ne prier nañ leen ci plateau bi. bokk na ci kii nga xamante ne mooy Mbacké Seck Mbacké Seck mu ngi nekk mandataire plénipotentiaire maa ngi ko taxaw Sénégal Mbacké Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fi ak kii di Samba Sall di cadre APR nekk responsable APR également ci daabali euh, Samba Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi fi ak ki nga mooy Ibrahima Diop nekk sociologue politiste consultant en organisation Ibrahima maa ngi leen nuyu. fay naa maa ngi fi ak ki nga xam ne mooy nga xam ne miin ngeen ko nag suñu plateau di analyste politique mais nekk itam observateur de la scène politique sénégalaise nekk itam juriste Ludovic Rosner maa ngi lay nuyu. Rosner ci jamono yi ñu toll nii ak jafe-jafe yi nga xamante ne fës na eh, coow li bëri lool ba ñu mel na expert sax yu doon saytu mbir mi ne. yëf yi gis nañ ci daal toxal mu nekk garab goo xamante ne mën naa saafara yu bari ci yëf yi ndax toxal mën naa nekk lu xel nangu wala itam gis nga ay yu mën a dessiné ne toxal mën na fee ne. waaw maa ngi leen xam naa la ñun ñëpp ay xarit lañu ay intellectuel lañu. daan bu rafet. Euh, li nga laaj ni am naa ci ñaari xalaat. Mm-hmm. tuxal élection du lu gën. ndax boo ko permettre le pouvoir en place. dañuy manipuler date bi en fonction de préparé nañu pare wuñu enjeu bi am na enjeu bi am te boo jëlee date électeurs yi préparé wu ci parce que foo nga bàyyi xel ci électeurs yi mm. parce que élection du affaire u parti politique kese c' le peuple qui va mm. kon bu la joxee dat ba jëpp def ko seen calendrier war nga fexe ba respecté ko mm. waaye nag bu ñu demee ba gis ne objectivement am na bu ñu teniree dat te mooy li gën du baax faaw ñu changé waaye nag li yëpp responsabilité gouvernement la ndax lii c'est la preuve de l'imprévision soo jëlee dat yaa war a fagaru defaru ba date bi nga respecté ko élection yi am te mu am ci anam yu rafet mais boo nee carte biométrique wala carte ñuy changé mais jëlal sa matuwaay pour mu pare avant élection yi waruloo joxe ay carte alors du pare et cetera wala liste yi bëri loolu dañ ko war a prévoir bokk élection caution bi tax koo cher mais war nga bàyyi xel ni bés dana ñëw dana am cinquante partis politiques loolu bu mu la bett gouverner c'est prévoir da nga war a prévoir ni bés dana ñëw dina am cent partis politiques en compétition boo waa nooy def mais bul toog di xulee rek ba affaire bi eh, mais qu'est-ce va faire est-ce que non loolu gouvernement warul doxalee noonu y a des am na ay conseils yu ñuy fay ak suñuy impôt ñu nekk ci président ñoom ñoo war a xalaat ne président lii la ñu war a lee war a def mais doo xaar mbir bi bett la ñoo pees la nga ah, élection boo ko jàppee date yaa war a organiser lépp ba mu nekk mais cet euh, tâtonnement bi est-ce que dina am est-ce que du am carte yi pare na est-ce voter ñaari façon carte ñu yor carte bu bees ñu yor carte loolu yëpp vraiment c'est de l'imprévision c'est indigne d'un gouvernement qui se respecte baaxul mm-hmm. dinañ ci dellu si waat léegi di ko Rosner Ibrahima Diop ci mouvance technique boobu nga xamante ne ñu bëri ci leen gën a am njaqare tey jii mu mel ni comme ni ko Ludovic waxee sànq nit ñi ñu ngi waaj ñu ngi waajal seen bopp mais fàtte nañu électeurs yi nga xamante ne ñoo ëpp solo ci mbir mi te itam ñoom pare woon nañ wala boog am na fu ñu woon a taxaw waaye bu ñu waxtaan dafa mel ni. tele euh, maa ngi nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp di ndokkale Sénégal ci ak àdduna bi ak umma islamique ci bis bi ñu jógee nii ci weeru sel wi ñu jógee nii ak. Euh, en fait rafetaay bi di jaare tamit Sénégal ci li nga ay kilifa yu mag yi nga xam ne wàññeeku nañ fi en fait ñi ñi ñu xam ak ñi ñu xamul tamit mm-hmm. waaw mm-hmm. toujours loolu la dañuy defe ne ñi ñu xam mm-hmm. ñoom ñooy honneur yi ñoo war a yor honneur yi alors que ñi ñu xamul ñoo plus yu important euh, di rafetlu sama ndaje ak euh, Rosner di sama xarit donc euh, jaar fu bari ci mbiru gëstu surtout bi ñu nekkee tout tànk euh, di gërëm tamit teewaayu ñi nga xam ne ñoo fi teewal parti politique yi maanaam mouvance présidentielle bi ak euh, ki nga xam ne moo nekk au nom de l'opposition xam ne ko bu baax euh, question bi nga laaj bi laaj bi ñuy posé léegi bi wax te ngeen invité mu ci pour que ma leeral ci may dañ ko war a leeral leeral bi mooy que tension bi ñuy wax ci ban côté la nekk d'accord ak kan mooy laaj laaj bi dëgg la euh, njaga sama xarit la am xam-xam lool bu màcc ci mbiru politique waaye mbiru date issue boobu ak maintien de l'agenda boobu ñuy wax mm-hmm. wala construction la parce que dafa am tension yoo xam ne dañ koy tabax noonu ci kaw air population ci état yi généralement ay acteurs dañuy créer ay tension donc mais est-ce que ci agenda nguur gi tension boobu existé na autrement dit est-ce que amuñu capacité respecter cet agenda ba pare il faut d'abord ñu pour laaj laaj boobu laaj tamit te xool ñaata carte la ñu retiré pour le moment pour mën a dem élection parce que mbiru liste yi bu moindre débat la bu amul importance la naan 47 liste la wala 10 liste la et cetera loolu consensus boobu ci côté wu parti politique yi ñoo ñiy dem en compétition ñuy am consensus ci format bi bi ñuy voté ñu yombalal ko nit ñi wala ñu jox temps de de temps boo xam ne day yaatu pour que nit ki mën a def ay tribu bulletin mais ci biiru agenda boobu je pense que bu ñu xoolee nombre de cartes ki sont retirées parce que booy jël booy dem bindu dañ naan la dañoo bërëb sàngam retirer sa carte donc agenda boobu je pense que ñi ngi koy respecté ba léegi te boo xoolee bu baax nit ñi ñoo am na ñuy dem ñu bëri di dem jël seen carte mm-hmm. aussi et ñi dem di jël seen carte dañoo nara a voté parce que soxla nañ ko ndax seen dund mais soxla nañ ko tamit ndaxte ci seen dund boobu mbiru wote da cee bokk donc loolu moom dañ moo tax ma bëgg ñu préciser mm-hmm. fan la tension bi nekkee situer ko ba pare doog ko mën a analyser ndax lu mat la pour mën a voilà ñu wax waxu toxal mm-hmm. euh, Mbacké Seck tension boobu nga xamante ne kiti bi am sax ñu commencé du ko gëm ba itam sax mu am ñoo xamante ne presque ñu ngi bëgg a mel ni ñu découragé yëf yooyu nga xamante ne tey feeñ na fës lool ci nit ñoo xamante ne ñii am nañ capacité xamee tension buñ taxawal ci ngelaw li ak bu sax euh, yooyu est-ce que taxul nit mën a tiit ci élection yi nga xam mu ngi ñëw ndax luy am la ndax luñ mën a toxal la buñ ko toxalee itam ndax waxtaan bi juboo lay doon wala. jërëjëf di du jotaay bi trop parce que am réew ni ko benn waaye doon waxee rek te changé quand léegi déggatu ñu wax ko am réew dañ koy pencoo mhm. ba mhm. waxee léegi est-ce que c'est pas des constructions en l'air mhm. est-ce que du ay ballon de son ñuy fàttali rek ñaari mbir ñaari événement politique yu fi jaar lu muy élection locale ñu amoon deux mille cinq cent listes dans tout le pays ñi dañuy fàtte loolu deux cinq cent listes yi boo ko décortiquer dafay nekk cinq cent cinquante cinquante et un cinq communes bu ci ne APR am fa ñetti list c' était le cas chez moi à Hann le cas à Biscuiterie c' le cas un peu partout dans le Sénégal foo dem rek APR am ñetti liste donc sur 2500 yi mënoon nañu wax sax que 1500 yi son des listes d'obédience Benno Bokk Yaakaar ñu taseeg ministre de l'intérieur fan yéeli mu wax ñu Sénégal am na 240 nangam parti mais am na 46 yu nga xam ni seen adresse c'est introuvable mais bu nekkee ku sos sa parti rek compétition électorale moo tax nga jóg war nañu mun a am 47 listes législatives bu ñu calculer coalition yi ñun ban régime la ñu amal affaire en mille 2016 bi président defee discours à la nation du 31 décembre hmm. amul woon benn Sénégal bu xam kañ la ñuy dem élection présidentielle parce que la durée du mandat présidentiel dafa ëlëmoon bopp nit ñu ndax ay engagement wu président depuis juróomi at mu naan danaa def juróomi at danaa ko appliquer sama mandat bi ba mi février à deux semaines mu ni ñu dañuy dem référendum pour ñu wax ma sama mandat ñaata at donc élection bi ëpp solo Sénégal muy élection présidentielle daw nañ juróomi at ak presque ñaari weer kenn xamul ndax bu juróomi atu président jotee lañu koy def wala dañuy def juróom-ñaari at loolu nekk violence ci parti politique yi nekk violence ci citoyens yi parce que nga war a am sa sañ-sañ exercer ko xamoo kañ la xamoo nan la lu metti ci Euh, électeur sénégalais ak citoyen li ñuy dund fu mu ne nii lan la commune boo dem commission boo dem ñëpp bind woon ñi ngi éprouver naqar ak faiblesse ak impuissance ñàkk mën dara ci jot ci seen carte électeur wala seen carte d'identité naam wax nga dañu nekk ci espace CEDEAO ñëpp dañuy woote grands ensembles mais bu ñu nekkee fukki réew ak juróom suñum réew kese yàkkamti gaawtu ànd ak vitesse ak précipitation pour defar ay carte CEDEAO yu nga xam ni dañ ko toftale carte électeur loolu luñ ci si jublu lan lañ ci wund du wane ni ñun ñoo gën a nekk l'état le plus fédérateur de cette communauté ñun dañuy wane ni ñooy état phare de cette communauté mais simplement pour brouiller la lecture natt yi ñu amoon ci fichier électoral xam dëkk bu nekk ñaata électeur la dëkk bu nekk ñaate centre de vote la dëkk bu nekk ñaata bureau de vote bi loolu dafa brouillé wu actuellement kenn dong moo am gis-gis bu wér bu wóor ci fichier électoral bi tey mooy Abdoulaye Daouda Diallo ak ki ko tabb parce que boo munee inscrire sëñ ci Bamambé wax école japonaise Maris ngay wote man danaa yendu ca commission ba ñetti weer yu nga xam ne ñu ngi inscrire du ma xam école japonaise mais kay jot fu ñëpp di inscrire fañ koy daje ca njombaxtal ba moom dong moo am vue global ci fichier électoral bi ñu dund ci nag lu tey xel ministre de l'intérieur dafa dëkk ah nu mu tudd ah, fàtte naa dëkk bi sax d'ailleurs bokki jalube bokki jalube suñuy gëstu ñuy veillé ci fichier bi ci ñun dañu wax ni électeurs yi fa bind ñoo ëpp population bi ministre de l'intérieur moo dëkk village boobu ci département deux cent mille électeurs daanaka yokk na ci ñu bees kenn amagul maîtrise sa nombre centre de vote ak bureau bureau de vote yi nga xam ne wàññi nañu nombre d'inscrits donc boo xoolee yooyu rek nga teg ci beneen nag li lëmbe àdduna bi muy l'histoire du terrorisme et de la sécurité waral dëkk yëpp dajaloo dem Mali dëkk yi nu ne ñu koy def booy tukki sonn bay bëgg dee daanaka dañuy xaw a summi sa tubay pour ay normes de sécurité di nga def tànku naa di nga summi sa kawas di nga summi sa veste Dakar yaa ngi gis ay auto ak ay auto gendarme yuy patrouille rond boo dem yaa ngi fekk ay homme de yor arme loolu amul woon Sénégal ñi tukki lu bëri yu bëri da fay fekk des hommes en armes dans les places euh, dans les intersections fu sële ba yoon di daje di nga fa fekk char de combat di nga fekk automitraillette di nga fa fekk ay barricades loolu mosul am Sénégal espace CEDEAO yi sax am na yenn dëkk pour des raisons de sécurité seen yu mag dafa am bunt ñu koy tëj mais Sénégal daawoo gis arme auto police yu nga xam ni toute sirène la ñuy jaar di yuuxu ci autoroute bi soo jaaree corniche nga gis lu mel noonu soo jaaree almadi nga gis lu mel noonu yàlla tere jéye ju ndaw ju am mën na indi toxal élection ñàkk jot carte électeur xamoo fooy jotee sa carte électeur sa âge duñ ko def wala ñu defal la photo jigéen boo waxee ñu ni maîtriser wuñ système bi loolu mun a andi toxalu élection yi euh, taw bi demaguñu fenn première pluie ñu am fukki moor ak benn ñooñu génn àdduna ñu ngi ñaan yàlla mu yërëm leen baal leen dégg nañ sax ministre de l'intérieur ba muy dem ca dëkk ba démb pour seeti leen hélicoptère bi mënta naaw oto ba dafa embourbé wu dafa ngiroo ci ban ba donc dëkk yooyu nu ñuy jotee seen matériel électoral nous mandataires yi di demee nu autorités administratives yi di demee ci dëkk yooyu te benn taw la ñu amagum Ousmane mm-hmm. donc daal li ñuy ñaan ñun maa ngi takku Sénégal maa ngi jéggalu ci yëre bi mm-hmm. ñun suñu couleur ver ak <laughs> orange la clémentine waaw buñ yëg waaw vraiment <laughs> vert bi du man maa ko andi man sama orange la andi wax ni <laughs> dañu dañuy def campagne déguisée mais ñu ko yàlla moo defar rek ñu andi orange bi tey am vert bi suñu gannaaw donc pour revenir ci loolu rek. Mhm. nañu xam ni réew mi benn la bu ñu jàppee calendrier électoral as néew si suñu gouvernement mun a def mooy mu respecté ko. législature ba nga xam ne ñafane député yu seen bopp ñooy génne seen làmmiñ ni mooy législature bi gën a niil ci législature Sénégal yi mhm. ngala bu ñu fexe lu yokk loolu may leen lu ñu fa gën a toogee mhm. nañu fexe élection yi ñu dem ci ak jàmm ku yàlla la ndam mais ñu may sénégalais yépp ni ñuy waxee un peuple un but une fois ku nekk am sañ-sañu jot sa carte électeur xool parti bala neex wala coalition bala neex nga voteel ko ci jàmm ñu dem ñibbi ñu dem ñibbi Mbacké Seck euh, Samba Sall yow mi bokk ci mouvance présidentielle bokk ci APR tey ñëpp a ngi wax respect calendrier républicain waaye buñ ko wax itam dañu bëgg aussi avec des méthodes républicaines am na ñu commencé am ay tiitàng yu bëri ndax tiitàng yooyu bokk nga ci yaakaar ne lu mën a jàll la ba élection yi am ci jàmm ak salaam ak ci waxtaan boo xamante ni itam lépp lu mbir mi laaj di ngeen ko weccu yaakaar loolu maa ngi nuyu sénégalais yëpp mm-hmm. di jaale aussi xalif bi génn àdduna xalif piir bu di di la jaajëfal aussi yow mi ñu invité ci émission bi parce que émission bi dafa am solo mm-hmm. déglu naa ñi fi wax spécialist yi mm-hmm. déglu naa aussi sama waa ji wax ci wàllu politique bi tuuti. Mhm. ak ci wàllu fisc bi. donc damay sawar bu baax pour tontu ko pour leeral lu bëri. Mhm. leeral li may li ma nar a wax du waxu du ay discours politique damay wax des li may njëkkee mooy daf ne réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo mhm. yaakaar naa ñun réew mi bañ koy jël dañoo pencoo woon pour ñun ñëpp ñu ant waaye bañ demee bu ci biir ñoom dañoo pàccoo ñoo tax ñoom ñu mer. donc ci pàccoo boobu ci pàccoo bi mu wax kenn du ko pàccoo parce que nee na li mu gis dafa mel ni ñi fi nekk dañuy pàccoo yaakaar naa li li xew tey problème bi am te moom mu xam ko xam na ne pàccoo moo waral li dal dal leen muy benn ma ñëwaat ci wàll euh, ak carte d'identité yeeg yooyu nee na CEDEAO expliqué na lu bëri vision bi président de la république am moo waral tey ñu dugg ci wàllu carte biométrique du sax mbiru CEDEAO yi kese parce que tey boo demee France bala nga dem États-Unis carte d'identité la ñuy voté da nga gis sax ka nga xam ne yow élection day jot mënoo dem nga defal ni procuration nga tëdd fii Sénégal gii nga woo sa benn xarit nee ko bëgg naa nga votel x wala y pour pas le Sénégal pourquoi pas le Sénégal donc Macky Sall c'est un ingénieur dafa jóg pour liggéey di di am engagement yi mu jël ci Sénégalais yi respecté donc ci loolu dafa am noo koy respecté pas ñoom discours ya ñuy faral di tenir bu dégg ba ci gérer la presse di wax ci presse bi di wax ci press bi ba carte dante yi fi mu ne nii ku ci nekk day jàpp ne jotul kii nee na moom question bi muy posé est-ce que jot nañ est-ce que jotuñ est-ce que ñu ngi joxe mbala joxe wu man ba may bindu sama récépissé bi ñu ma joxoon mois de juin lañ ma waxoon juin dem naa jot te boo demee préfecture daanaka sur vingt yi ñooy jotuñ wala ñu naan la accès gu yëpp dañuy jot te nag aussi campagne tàmbalee bu le 9 lay le 30 juillet la ñuy dem élection mais yaakaar naa tey ci Sénégal organisé wu nañ de telle sorte que yoon yi baax nañ baaxaay ba nga xam ne soo buggee acheminer au moins en 20 jours laa la bëgg ay carte pour nit ñi jot ko warta jafe. wax na aussi ci wàllu taw bi taw bi am benn taw hélicoptère bi mënut ta daan naaw oto yi di ci biir suuf si mais yaakaar naa ne. lu ñu Sénégal lu mu foor fort fort américain ñoo ñu gën a fort da gis Brésil gis yeneen dëkk benn taw day am laa dañuy wuti ay ndimbal fu nekk ci àddina pour gars ñëw génnee mm. mbiru taw c'est des choses naturelles ça dépend de Dieu du ay mbiru problème mu fam buggoon waxee dafa waroon àgg ci ay wàllu peut-être assainissement bala ak lenn ñi fi nekkoon ci Sénégal bu ñu defoon lañ waroon def Macky Sall bu ñëwee il est né après l'indépendance du ñëw di lijjanti ay mbiru taw taanam wala taawut pas nag pour mu daaneel ay dara mbala mu yàq ay dara c'est des loolu Macky Sall mënu ko maîtriser hmm. su mënoon maîtriser ay taw bi day yàq mbala du yàq du def campagne hmm. kon day naan maay gagné hmm. kon du maîtriser ma dellu si waat tuuti ci wàllu fichier électoral bi euh, fichier bi ak kii bi euh, boo xoolee ni système bi demee Macky Sall du machine bi toogul ci machine bi te mënu koo conditionné soo jëlee sa empreinte nga teg su baaxul danañ la fompal ba sonn nga xam ne mbiru kii la ku ci nekk euh, dafa am condition yooyu bindoo da ngay indi sa certificat de résidence pour yombal nag nit ñi pour ñëpp mën a am seen sens moo waral bu la neexee yow nga dëkk fu la neex foog nga Lemim wala Sarayam wala feneen nga ñëw nga bindoo Dakar yow sa bopp tu es libre Macky new fa ministre intérieur new fa keneen new fa yow yaay indi kayit buy firndeel ña fa toog commission ba te ñoom man Nioro laay voté mbala Poos laay voté soo ko indee ñu xool loolu la ñuy def gis boo ko amul ak koo mën a doon bu doon Macky sax gars yi dañ naan duñ ko jël faw nga départ nga indiwaat soo ko defee carte d'identité bi li ci nekk man li ma gis laay wax di xam ne leer na ma carte d'identité bi man de jot naa sama carte waaye fa ma waxoon fa laay voté muy Kabakoto sama bureau de vote numéro bi génn na ci te yaakaar naa am nañu bëri ñu ma fa desel ñoom seen i mbokk yi lañ parce que am na ñoo xam ne xamee naa leen ci télé bu baax keroog préfecture ña dajal ci ñoom la jot nañ seen i ñañ euh, àndaloon jot nañ seen i carte mm-hmm. donc bu ñuy bu ñuy bu ñuy wax ci wàllu politique mbala di wax ci wàllu bu ñuy faral di léere sénégalais yi mm-hmm. Macky Sall bu fekkoon ne daf ko buggoon toxal soxlawul ay affaire terrorisme mm-hmm. États-Unis moo ñu Arabie Saoudi laay wax bépp jullit bu fi nekk mbala Rome catholique yi fi nekk fala ñuy dem julli ji Arabie lañu dem keroog ngeen dégg la am Arabie Saoudite chaque fois Italie ngeen dégg terroriste terroriste terroriste loolu phénomène yooyu sax boo seetloo ci pays émergents yi sax lay gën a bëri hmm. parce que dëkk bu amul dara bu amul lum lekk amul lum naan avancé wul terroriste ñu duñ fa soxla ñëw hmm. terroriste yooyu foo leen gis ñu dem soit am na pétrole bala dëkk baa ngi émerger hmm. ñu bon lañ bëgg a freiner parce que terroriste yi mu fi mënta def rek je pense que Macky lay gën a métti moom mi nga xam ne dañ koy jugé ci bilan boobu ña dee nag euh, ñiy wax maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp Macky salle reyu leen régime bi reyu leen yàlla mi leen sàkk moo leen fa jëlee Arabie Saoudite gën a fort nit ki dana dem Makka bousculade am ñu bëri dee fa kon loolu daal du doy pour ñu ne nañ toxal a yu mel noonu non ma ne Macky bu ko doon toxal mhm. yow xam nga Macky il est direct bu ko doon toxal nam defoon référendum yi day taxaw ne lii laa bëgg a def bu dee constitution bi da ko sant ne référendum lañ dem fa la koy jaar mais système bi boo xoolee ni koy defee xam nga kuy jëm di joxe ay fils naan te ñi nommé mandataire am moom moom plénipotentiaire mu nommé ko def xam nga ne taxul élection mm-hmm. d'accord merci nañ ci dellu soit léegi euh, Ludovic Rosner euh, tey boo xoolee ci niñ jëlee élection yi ak xaalis bi ñu wax yëpp ne moom lañ ci def nañu wax sax cinquante cinq milliards ci Malaisiens yoo nga xam ñu war a defar carte bi loolu nekkaat ay bor yoo xamante ne wala boo xaalis boo xamante ne mënoon na dem ci hôpitaux yi ci inondation yeeg yu mel noonu tey jii est-ce que xel mënoon naa nangu xaalis boobu bu fekkee yëf yi itam dafa am nu mu bindoo te ñu am ci lu ñuy tiit ñu waxtaan de consensus mën na li nga xamante ne mooy may Sénégal mu def moyen de dépense wala mu may ko loo xamante ne dina jëlaat xaalisam te mën a organiser élection de manière apaisée. waaw loolu mooy li tubaab wax bilan coût avantage mm-hmm. maanaam dugaluma ci tant de milliards. waaye est-ce que jar na ko man dama yaakaar ni euh, ñi bëgg a falu député ñu bëri xamuñu importance su mission ñay fal aussi xamuñu importance su mission xam nga njiitu réew bu ci boppam kenn gënu ko kawe na muy doxalee constitution constitution loi la ku bind constitution depuis kuy bind loi député kon député amul ko gën a kawe parce que ki gën a na muy doxalee moom moo koy wax mais boo gisee seen comportement assemblée nationale nga xam ne ñii xamuñu seen mission ñi ñu faloon barki démb député jox la micro nga ne ñu ne la luy mission nga ne jàppale Macky Sall hmm. kon xamoo sa mission au contraire yow sax war nga mën a jàkkaarloo Macky Sall ngir la peuple ndax peuple bee la fal Macky Sall faloo la de kon ñàkk xam problème dina am ci réew mi doo dégg benn taaliba yaa ngi nii ñu leen di sàkku di leen fiir di leen siif soo dégg député ju xuloo lu ñuy xuloo poste beeg carburant beeg et cetera et cetera justice baa ngi nii ñu koy manipuler ku kon Macky Sall ñu tëj la kaso te it magistrat yoo ko wax ah mhm. ñoom ñoo wax ni ñun amul amuñu indépendance procureur bi démission lan la waxoon je vais être un procureur de la république et non pas procureur du gouvernement kon ñoom seen bopp ñoo wax ñoom seen bopp ñoo wax ne amuñu indépendance est que dégg nga député wax ci mhm. est que dégg nga député xuloo ci déedéet dañuy xuloo carburant parce que ante maa doon kon xamuñu seen mission te it ñi ci bari jànguñu Macky Sall waxu sànq mooy mooy législative ba gën a nul ñu ci bëri xamuñu dara ne fay nelaw rek ek ci tàccu liggéeyuñu te xoolal waa nu mu mel droit la léeg-léeg nga lire sax euh, euh, document huissier doo comprendre dara parce que da ci am langage juridique rawatina loi bu rëy bu mel ni acte trois wala leneen ñu boo xam ne ay borom xam ñoo ko tëgg lu yàgg bind ko indi neexul waxal ndax li ñu bind nii ni ñi jàng bind est-ce que baax na wala baaxul luñ lay wax comme ak sa am dañ ciy ànd bu dee Ablaye am nañ dañ ciy ànd amuñu xalaat parce que amuñu xam-xam te lii du mujj fen gis nga bu bu ñu defoon élection sax ba opposition gagné. Mhm. du mujj fen xam nga lu tax. Mhm. dañuy di jënd benn par benn ba affaire bi renversé wu nga baal ma de grand <laughs> man mhm. <laughs> ah xaw na waa PDS. bi leen gagné ñaata député dañoo des PDS. ña ngi rocceeku dem APR ñaata ministre PDS ñoo jóge PDS dem ci Macky Sall ñaata maire yu falu ci PDS ñoo dellu ci Macky Sall ñaata député la fal ci PDS ñu ku dem ci Macky léegi ñu ne boo boo boo changé parti da ngay da ngay ñàkk sa mandat mais li am nii moo gën a garaaw xam tax da ngay wuyoo PDS nekk yaa ngi ci Macky Sall nga député PDS la fekk yaa ngi travailler pour autre chose waaw mais ñii est-ce que jar nañ ay milliards loolu mooy question bi. jàngoo santé jàngoo culture jàngoo enseignement nga bëgg nag assemblée léegi bépp loi bu ñëw. ah mais te gëstuwoo. Mm-hmm. su ma nee jàng na du question jàng rek école jàng alquran baax na. Mm-hmm. jàng sur le tas baax na xam-xamu stage baax na mais boo jàngul dara nga jàppee sa bopp ne man daal li mu fiy def mooy jox majorité Macky Sall. yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor peuple sénégalais war soo ma nee milliards yi ma ne kon est-ce que jar na ko parce que ñi may gis nii liggéeyuñu mm-hmm. mm-hmm. la xew asta nu tudd hôtel des députés kenn mënu ko wax mm-hmm. xuloo bi yëpp mais xoolu xoolu xuloo yu gis ci kii bi ci investiture yi ci benn njëriñu Sénégal doo ci investir pourquoi diw pourquoi Moussa Diop man bu ko ba joxum ba maa waroon fayu lu tax ngeen lu tax ngeen lu kii kon investisseur moo la indi si si si si si liggéey bi. ci biir problème yaa ngi nii kenn waxu ci. ndox amul Dakar man fi ma dëkk biir Dakar. pendant seize ans mosuma gis ndox ba cëkk. moo ñëw fii guddi rek lay ñëw de temps en temps te ma nekk fii Dakar dans a capitale. te nee nañ Dakar gépp mosuma dégg benn député wax ci. kon lu ñuy wax ñoom politique rek. kon xaalis bi ñu dépensé est-ce que jar na ko man jaaxal na ma. jar naa laaj. Euh, Ludovic euh, Rosner. Euh, Ibrahima Diop techniquement kon on s'interroge nit ñaa ngi laaj. nit ñaa ngi am tiitaange di laaj ne élection yi am ak ñàkk ama yem ndax boo amee itam léeg eh, ñoom dañ leen di fàtte lu leen métti lañ ci jëlee député boobu nga xam ne léeg-léeg day fàtte mission am mais ndombal tànk bi rek moo ko gën a ñor aussi ndax lan moo ko fi mën a jëlee nga yaakaar. Hmm. sëñ Ousmane bala may yàbbi ci di ci sax ci wax laaj boobu ma demandé suñu naataango sama naataango yi. Euh, notamment acteurs politiques yi ñu rafetal kàddu dama koy wax en tant que formaliste cette fois parce que ñun bu ñu amee xam-xam boo xam ne moo tax kenn woo ñu fii parce que état moo ñu permettre ñu am xam-xam boobu euh, muy man muy sama naataango bi di Rosner ngeen invité parce que président de la république kenn du ko tuddee Macky Sall institution la nañ ko respecté donc xam ni jox ko cër bu ca war et respect institution yooyu nag dafa war a nekk suñu culture suñu caada et c'est important pour que ñu mën a comprendre problème yi am yëpp ah, am na yoo xam ne lim nañ ko fi taaruwul waaye ndaw pencum bi nekk ci pencum réew mi nekk ndaw réew mi ci penc moom di député dañu fay représenté mais li ñuy wax naan les faits accidentels maanaam faits yoo xam ne dafa accident warta nekk source de règle de droit déedéet warta nekk source de règle de droit warta nekk aussi point de départ boo xam ne fa la ñuy tëralee mën nañu nekk point de départ boo xam ne moom la ñuy interdire te moom la ñuy aye waaye du nekk point de départ boo xam ne moom la ñuy tëralee euh, dëgg la que gis-gisu député perception bi Sénégal yi am ci député dañ ko war a gëstu tamit mais fi député yi war a jóge mooy ci zone ba mu nekk wala ci espace ba muy évoluer ba pare nekk fa leader buñ nee leader nag du koo xam ne day jiite nit ñi comme ça rek déedéet day nekk nit koo xam ne nit ñi doyloo nañu ko ci taxawaayam parce que mi ngi indi ay tontu ci laaj ak soxla yi nga xam ne moom la askan wi am wala goxam am wala mbootaayam am et que tontu yooyu buñ ko nattee ba ci biir am na ay yoon ak ay pexe ànd ak waa mbootaayam ak waa goxam pour soppi seen nekkin ci anam ba mu gën a rafete ci jàmm ak ci liñ daan jëm ca kanam donc gis-gis boobu dañ ko war a ndatt ba pare pour gën koo mën a lawal ci biir Sénégal moo tax xam nga tase naa fekk ay acteurs yu bari mais am na benn acteur yoo xam ne il dañuy metre accent ñoom ci approche boobu par le leader mais leadership boobu dañ ko war a yaatal dañ ko war a gën a développer. ko développer il faut que la représentation au niveau des partis politiques parce que sëñ bi wax na ko sànq ah, sëñ Mbacké waaw mais création parti politique ak objectif am de conquête du pouvoir seulement c'est parce que dañ ko réduire à ça mais c'est parce que dañ ko réduire à ça que aujourd'hui tey jii nii boo xoolee kuréel yi sàkku réew mi ñëpp kenn waxatul dara ci mbiru formation ci mbiru formation ak développement politique or développement politique moo war nekk point de départ bi nga xam ne moom la ñu war a sanc un parti politique mais loolu amatul y'a même plus les universités d'été et d'hivernage sont de, des espaces de convoitise malheureusement donc il faudrait que ñu laajaat parti politique yi avant ñu leen di sos parce que am nañu pas seulement adresse bu ñu leen mën a joxe ay bataaxal mais est-ce que am nañu un dispositif et une capacité de développer la formation politique important pour am le modèle de député ba ñu bëgg cest mooy le vivier bi war a joxe mooy point de départ hmm. ñaareelu ponk bi nga xam ne da ko laaj dëgg loolu sama doomu réew yi ñoom ñoo ñooñ lañ koy sas maanaam ñun ñii ñoo war a xalaat ci yan anam lañu mën a jàppale parti politique yi ba ñu mën a développer loolu gën koo yaatal gën koo lawal donc te loolu est-ce que besoin parti politique day day tase nag comme soxla mu nekk besoin sinon parce que ñun mënuñu satisfaire un non besoin même si mën nañoo wan parti politique bi que ni lii besoin la donc loolu c' est extrêmement important pour que ñu am le modèle de député ba ñu war mais troisième point bi nga xam ne war nañ ko développer pour am ce modèle de, de député mooy que mu am un format de réglementation qui passe par une logique de prestation de serment le député en tant que représentant du peuple bu ñu ko falee prêter serment kooku moo war a prêter serment dëgg dëgg na parce que moom moo war a waat parce que moom te buy waat dama bëgg ñu natt ko ca la mu gën a gëm mu waate foofu ca ña ko fal ca loola mu waate foofu et ça c'est extrêmement important parce que il faut nga waat ni ñii jël jël naa engagement que dinaa leen représenter solennellement dignement et honnêtement mm. parce que retour day am mm. et ça c'est extrêmement important pour que ñu mën koo développer ce format là pour permettre population et à nos compatriotes d'encadrer le député élu. Et cet encadrement-là, le député peut les échapper à tout moment. Maintenant, am y a question bu ci am. Parce que le Sénégal, il y a un article en 2003 où on est un peu bonne performance et bonne innovation internationale le Sénégal crée. Donc, diaboliser. parce que rafetul ci nit ñi ci bés bëtu nit ñi mooy li ñu rafetul ñu décrier ko mais Sénégal dafa fekk dafa nekk réew moo xam ne moo njëkk a indi transhumance ci adduna bi c'est une innovation politique de taille bi mu ko defee di ko développé ñu constaté ko dans tous les pays du monde rawatina France rawatina même États-Unis où il y a transhumance dafa am ñaari dimension dafa am dimension politique am dimension technique booy ne da ngay def une gouvernance inclusive mais ñëpp nga war a boole absorber l'ensemble des capacité pour que ay des talents pour que sa sa doxalin mën a am résultat ya ca war yow gis nga ne ñu transhumé fii dañu rallier un état techniquement comme technocrate njëriñ réew mi wala dañuy rallier un parti politique pour jëriñu parce que foofu la xam nga ñaari ñaari élément dafa naqaree dissocier hmm. dafa naqaree dissocier parce que la le champ politique aussi dafa nekk ci champ ci sphère boo xam ne dafay exister hmm. comme le champ sportif ni muy exister ni muy exister et cetera et cetera champ yëpp dañuy exister hmm. donc mënuñu éviter te waruñu bañ mécanisme boobu de transhumance mm. waaw parce que bu njëkk ba ma nekkee tu tànk lu ma ñaawlu woon la mm-hmm. mais bi ma demee ba analyser ba gis ko en 2003 la bind article boobu sur la problématique mm-hmm. te wane naa ni transhumance dafay permettre yow nga traduire le caractère inclusif de ta démarche mm-hmm. parce que lu ñëpp bokkul liñ moom wax na ko ah lu ñuy péncoo mooy lu ñuy waxtaane ba d'accord ci mais buñ ci xase ba d'accord ña la contrôle dañuy rallier ànd ak yow ci li ñu d'accord mais loolu loolu mooy lan hmm. nu ñuy tudde lool mécanisme de consensus boobu hmm. résultat bi nu ñu koy tuddee au finish dañ naan du transhumance hmm. kon book il faudrait que ñu xoolaat waxin bi defaraat xalaatin bi pour mën a génne li ñu te li ñuy wax ñu éviter mu bañ a nekk intérêt strict du moment mais mu nekk ay éléments de structure yoo xam ne mën nañ ci wékk pour mën a jëm ci kanam mën a jëm ci kanam Ibrahima Diop parce que Mbacké Seck euh, foofu la problème bi nekk tey jii euh, au Sénégal a ah, ñu bëri dañ lay wax waxu transhumance ñu bëri dañ lay wax waxu relier en état tey boo xoolee président Macky Sall 35 euh, pour cent yi ko woteelu loon ñoo wax ni président Macky Sall du seen chef de l'état waaye est-ce que seen besoin ñu ngi koy jël en compte comme noonu comme tout Sénégalais ku woote ak ku wootewul nekk citoyen kooku benn la ci li Ibrahima Diop souligné ñaareel gi mooy élection yi ñuy dem dañ gis ne ku ci nekk yaa ngi jóg ñii ne pour bare la route au pouvoir le pouvoir ne pour barrer la route à l'opposition finalement askan wi nekk ci diggante bi est-ce que yëf yi aussi ci jàkkaarloo boobu lañ ko war a def wala itam war a posé. waaw Sénégal fi lu ñu yëngal rek dafa waroon nekk intérêt général euh, dafa am lu ma d'accordul tuuti ak. Euh, Ibrahima Diop waaw suñu boroom xam-xam bi Ibrahima. sa à dire débat bi fi mu toll nii amagul benn wax bu débordé débat bu civilisé lañu am ci terme yu rafet man loolu laa constaté donc euh, euh, di ci félicité ñëpp <coughs> Sénégal président Macky Sall dafa togg ay concept yu nga xam ne ay ay baat citoyen boo ko déggee sa yaram day daw bi ci gën a rëy mooy la patrie avant le partie cest à askan wi li ji bokk balaa par parloo bi ñëw dafa rëy yoonu yokkute dafa rëy. gouvernance sobre et vertueuse. gouvernance sobre et vertueuse dafa rëy mais fa muy mujjee moo ñu dul neex Samba fàttaliku na léegi ni président ingénieur. produit pur école sénégalaise la comme ñun ñii ñëpp jàngiwuñu feneen lan moo andi président ba mu nekk président de la république directeur Petrosen ministre de l'énergie ministre de l'intérieur président de l'assemblée ba alhamdulilah président de la république ba nu koy xeex assemblée dañu wàññi mandat président assemblée bi def ko benn at mu bañ ko ay weer ba dem ñaani njéggal ñaani njekk Touba fu ne mu dem fa laxtu pour ñu loolu mais bu la loolu jëlee ca assemblée buñ la falee président de la république erreur yi andi nga war a rectifier man d'accord muy jël juróomi at pour rectifier le mandat annuel du président de l'assemblée fragilité boobu oyoftal boobu ak soofantal boobu ñu def président assemblée nationale ba nga xam ni dañ koy obligé lu président ni waaw mu ni waaw te moom rek moo am sañ-sañu ni déet président déet bu am solo ba gis nañ ci fa nekk léegi lakka loolu andi mooy tas parteem ñaar wax yu teggunuwul ci uniquement conserver position lan la ñu gis ci assemblée bi nekk mandat nekk benn at Cheikh Diop John membre parti présidentiel ni damay nekk candidat président assemblée nationale palais lañ ko delloo ko place am ni ko bul ko ŋaaŋati ba boo demee sax lu mu bokkul ci liste bi ci lu ko andi ci la bokk ñu mun a fragiliser oyo ñewantal président as soofantal président ci mandat benn at ba fu la neex nga këll këlle ko lu la neex nga def loo ko fa te loolu la président seetaan juróomi at te looloo ko jëlee fa mu jóge woon loolu il faut ñu koy fàttali ci parti politique yi danga nga ci wax kii nekk sama ndejoor man bi ma koy xam daf ñu doon former suñu parti politique ñaari yoon ñun réew mi dañuy def formation fexe ba suñuy élément dëgër parti am na ñu koy def président ma ñëwaat ci président mm-hmm. référendum buñ ko fàtte dañu waxoon modernisation du rôle ba ñuy debaat ci tali yi dañ doon wax ni dañuy fexe ba parti yi def leneen lu dul woote ak encadrement militant mm-hmm. moom moo yore parti au pouvoir moo yore seetu bi partem la parti yëpp war a seetu lu am APR xeex tojante bopp yóbbante tribunal moom ci boppam wax na leen dangeen ngeen fuuy parce que xaalis dafa am moom ci boppam ci làmmiñu boppam nee na leen da ngeen a siis moom ci làmmiñu boppam nee na leen doo leen cotiser te loolu yëpp kaset yaa ngi fi alors que moom moo woote ci référendum bi modernisation du rôle des partis politiques biir assemblée nationale amoon na une commission de contrôle et de comptabilité ña fa newoon muy l'honorable député na Bocoum ak moom Mamadou Lamine Diallo bi jaar banque mondiale. Mhm. bi ñu ñaanee biir assemblée nationale mbir yi leer mu am transparence ak bon gouvernance dañ leen seppee ci commission bi dàq leen ci en tant que président de commission indi fay affaires yu nga xam ne amuñu niveau loolu ay fee la li may wax c'est des faits yu nga xam ne éclairer fii ñu jëm foofu échec diplomatique u Sénégal ñun ñëpp mer nañ ci fàttali muy UEMOA muy Union africaine mais ku jël parlementaire bu mel ni Cissé Lo nga xam ni dañ koy dàkkanteloo El Pistolero sa tur yow li ñu lay dàkkale rew mooy fital guy rey ñu jël la def la président parlement communautaire kooku mooy plus mauvaise publicité de ce que ave Sénégal avait jusqu'ici muy ay des hommes de qualité. pourtant bu yàggul félicité. waaw ñàkk pexe la xam nga yenn saa yi ngay am félicitation ñàkk pexe mais je veux dire que rek ña nga xam ni du ñu naw président sam parce que fii Sénégal buñ doon def sondage ñi naw ay sorti député boobu bariwul ñiy déglu waxam jëlee ci njariñ bariwul. waxam mooy am na ngànnaay sama poos am na million sama poos diw maa ko def lii wax yu teggunul diw maa fexe président def ko nangam du loolu mooy référence bu ñuy xool ci député ba député bu ñu mën a yóbbu ci parlement bu nga xam ni deux cent millions de personnes. pourtant assemblée bëri na cent cinquante ñu tànn ko ci kon peut-être mérite bu ko ci yóbbu. dañuy téyewante rek gars yi dañuy téyewante surtout affaire yu jëkk yooyu te boo xoolee affaire yu jëkk yàq bëri na coono. Hmm. parce que président. ba muy tàmbali am na problème ak euh, aline Badara Cissé ba mu dem frigo ñu andiwaat réchauffé président am na problème ak Mimi Touré président am na problème ak ñoom Mbaye Ndiaye ñi nga xam ni ñoo ŋànkoon APR gu njëkk ga ku ci dellu nga ginnaaw donc daal pour revenir ci mbirum députation bi ak seen taxawaay dañ leen war a ba ku ci la ngay def niñ leen maye immunité parlementaire ba boo nekkee session kenn du la mun a woo nga xam ni da ngay am sañ-sañu gëstu wal fajiri gëstu bu sori te ñoom duñ la mun a porte plainte nga am sañ-sañu wax ci mbiru dëkk bi wax bu metti professeur wax na ko léegi ñàkkum ndoxu dakaar cette fracture hydraulique nit ñi dañuy wax fracture numérique fracture hydraulique diggante dëkku kaw yi ak dëkku taax yi ci biir dëkku kaw dëkk taax yi sax day am fracture nañuy jotee ci ndox mi du bokk ci ndox mu baax ak ndox mu bon tey boo dégloo rajo yi même télé boobu ñu tuddee télé faral Macky sax tey boo leen dégloo am na ay waa bar ñu amuñu ndox yaakaar naa trois quatre ou cinq mois yi passé moom nit ñi niñ sonné ci ndox Dakar jéggi na dayoo donc dañu yaakaar suñu naree jël alal ju toll noonu ci carte biométrique yi te nit ñi amuñu satisfaction confection bulletin yi nga xam ne moom nañu nar a mu ëlëm imprimeur yi ëlëm borom liste yi ëlëm ñëpp ci alal ji ñu ci nar a def pour jël ko sànni mbalit war na ci logique émergence ak logique gu yoonu yokkute dërëm bu nar a yàqu fenn ñu def ko ci lu nga xam ni dafay defar dëkk bi nu ñu fexee ba année scolaire bi apaisé wu ñu fexe courant bi gën a dëgër fexe ndox mi nit ñi mën ci gën a jot loolu mooy émergence yokkute du bâtiment yu jóg kaw wala ay peinture ay oto ki peinture yi mais dañuy fexe ba kër gu ne ku ne mën a jënd ordonnance ku ne mën a fay gone fayal gone école ku ne mën a fay ndox ku ne mën a fay loo lekk coob ak job bi nekk réel loolu mooy émergence mais du taayu bâtiment du ay discours laboratoire yi wër président ak tous ces communicants grand journaliste yëpp Ousmane waxuma doo grand journaliste ah. waxuma loolu grand journaliste yëpp ni ko Idrissa waxoon mhm. toutes ces grandes plumes qui sont devenues des dames de compagnie mhm. loolu facteur handicapant la pour suñu dëkk dafa ñuy tardeel parce que du dugg ci lu jëmalee réew mi kanam mais lu gën a taxawal président ci njuñ ñaaj ak jubadi rek moom lañ koy dugal. Mbacké Seck dinañ ci dellu siwaat léegi euh, Samba Sall ci réeroo gu bëri muy ci seen boor yéen mouvance présidentielle muy ci kujje gi réeroo gu métti na ñu ngi wax waxu 47 liste xaalis boobu ak ni ñu tollu nit ñi dañu demem yàgg ñu ne lan moo yëkkati nit ñi parce que dañ yaakaaroon askan wi leen yëkkati waaye ñu bëri boo waxee ñu ne bi yoon dañ gën a am tiitaanga ci élection député parce que bi yoon boo moytuwul xaalis bu bëri moo ciy tabbi waaye fawoon na woon boo moytuwul itam du ñu am député ñu bëgg ndax tiitaanga boobu yow bokk nga ci ñi ko partage non damay ne tiitaange amul hmm. xam nga bu ñu buñ ma dégloo xel rek dinaa leen leeral lu bëri buñ déggee ni may waxee xam nañ ne du ay waxu politique laay wax ci li sëñ bi wax léegi am na yu bëri yu expliqué ci wàllu d' abord députation la laay wax d' abord modèle yu nit ki ak lépp li mu wax boo xoolee président Macky Sall président de la République Sénégal avant muy ñëw au pouvoir poste bi mujj a occupé député la woon parce que même boo nekkee président assemblée mm-hmm. député nga mm-hmm. c' comme le premier ministre ministre nga ba pare mais yaa jiite ministre yi mais la ko dal li ñu wax ñoom li jàpp ne dafa euh, wàññi mandat bi benn année ak leneen la leçon ya kii di wax ne député noonu la war a mel kan moo amoon sañ-sañ ci depuis 1960 ba tey wala depuis tubaab bi ñeme toog nekk député tiim xaritu njiitu réew waxuma la sax doomu njiitu réew de ak Karim Wade pouvoir yam amoon toog nga ne dañ koy saytu su Macky Sall pesé wutoon li ko Sénégalais yi dénk serment moom ba mu prêté woon pour toog en tant que député président de la président de l'Assemblée nationale lam yoroon du ñeme jàkkaarloo ne day wax ak di ko laaj lam def ak def lu dal Macky Sall si ñoom rek lim woo Karim Wade moo tax te li tax mu woo ko mooy engagement ya nga xam ne da ko jëloon engagement ya nga xam ne da ko jëloon vis-à-vis des da ko accepté woon toog jiite député yi moo ko yóbbee loolu muy benn mm. kon yaakaar naa député yi ñëpp ak ku mën a doon rek war ngaa mën a yi ci président Macky Sall ba muy nekk député mu jaral la it ñu jëlee la fa nga parce que Macky santul kenn newul kenn buñ indee loi jaarul yoon bu ko wote parce que bu fekkoon ne loolu la daan def yaakaar naa war na mën na am yeneen ko neneen kon duñ ko yóbbu assemblée nationale nga jël président Macky Sall waxtaan wax dëgg ca bu ñuy bu ñuy bu ñuy wax ay mbiru euh, kii ñoom seen coalition yi mm-hmm. ñoom seen bopp taxaw taxaw Sénégal déjà seen ambition ñoom bañ koy créer li ko indi du taxaw Dakar la woon kon c'est-à-dire seen ambition bu yaakaar naa bu yaatu woon bu doon askan bi wala sénégalais yi ñoroon nañ leen lu dul je pense ñoom seen commune yi ñu nekkoon fii di def lu leen neex duñ ba ñuy jóg duñ teel a tuddee mbir mi taxaw Dakar ba ñuy door rek mën nañ ko tuddee taxaw tuddee ko seen coalition mairie te ba ñuy taxaw Dakar di def la ñuy def def la ñuy def def la ñuy def dem ba ci biir ku ci mel ni Idriss Seck mi mu tudd moom ci quoi moom ci ci ci ci li Macky Sall def ci la bokkoon. yaa ci Benno Bokk Yaakaar boobu. Hmm. te c'est le seul yaakaar naa président au monde man ci li ma jàpp. et ci li ma gis te sénégalais yi ñëpp buñ honnêté nañ wax mu tenir au moins ténor yi tet yi coalition bi dem ba législative député bi jeex tak kenn génn ñi génn ñëpp nag Macky génnewu leen boo jëlee Idriss Seck mooy lan puusal ma esprit boobu la mos a yor moo tax moom ba mu génnee dafa créer quatrième président de la république yaakaar naa ngay jullit tout le temps day wax ay verset alxuraan ci kii bi di wane ne jàng xam na li yàlla wax ku xam ne yàlla wax rek nga xam ne nguur yàllaa ko yor moo koy jox ku ko neex même bu Sénégalais yëpp jogoon génnee seen carte yi taxaw ci Sénégal yi ne ñun Idriss Seck la votel mu war a mën a tuddee coalition neneen lu taxaw ne quatrième président de la république hmm. bi mu ñëwee mënut a digérer jiitu keneen doon quatrième looloo tax finalement dafa jaaxle woon jubawutoon na ak président muy def xam na ne kii day dem boo poussé ba poussé day dem bokk ci dem bi mu demee it gis nga finalement dafa gedde te kenn génne ko kenn dàqu nga jël président Niass qu'on respecte beaucoup bu dee te yaakaar naa wallu administration administrateur civil yi xam ngeen ko yéen ay spécialiste ñoo fi toog xam ngeen lam jàng xam ngeen lam doon xam ngeen lam man te ku toog ay débat am dégg ni mu koy canaliser dégg ni mu defee assemblée nationale nga xam ne c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut quant à nag ku ci nekk yow da am tey sa biir kër sa njaboot nga gis kii nangoo jàng di jël p nga am sa beneen doom muy sàcc def lu ko neex président Macky Sall di mooy lim mën mooy bu investir jotee ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom yàlla sax maanaam tey yaakaar naa même yow sa bopp lépp looy def ñuy ànd ak yow ngay defar c'est-à-dire bu ñuy investir ci partem parce que joxuñ ko autorisation na investir li ci député yëpp APR la ko wax buy investir nag ñi nga xam ne parti ak coalition ñooñu la ñuy tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci base bi bu leen investir député bu ñëw nga def la nga waxoon population bi def lañ wax ci taxi yi fayiroo sa mission mais boo defee la la neex yaakaar naa député bi du président Macky Sall mooy ñëw di jël yar di ko dóor séparation des pouvoirs dafa am législatif ak pouvoir exécutif bi mu yor donc loolu man je pense question de de de bon la question de de de la comme yow li kii wax bu ñu toogee kenn bu mu ne Macky Sall nañ ne président de la République parce que euh, institution la comme moom ni mu ko xamee jàng ko ñëpp jàngalee ñu ko noonu noonu aussi le député bi nga xam ne accepté nag campagne toog gëstu dégg na war a mën a d'accord lu mel noonu bu ñëwee toog def la ko président def la ko loi bi hmm. ñëwaat ci wàllu jafe-jafe sénégalais yi muy wax. Hmm. tudd wàllu ndox. ndakaaru tudd na wàllu courant tudd na wàllu mhm. damay gën a sawar a wax d'abord ci courant bi laay tàmbalee mhm. parce que man ASER laa nekk cadre laa foofu donc je pense que lii ma leen di wax moom dama leen di xamal lu ngeen xamu doon leeralal leen lii moom du ay waxu yu ma gëstuwut yu ma leer mhm. bam euh, ba présent Macky Sall biñ ko falee 2012 li mu njëkk a def mooy créer benn programme bu tudd pilière programme national d'urgence d'édification rurale à peu près cent milliards la ci def ci programme boobu de ci seen taux de daanaka toll na ci cent taux électrification daal vingt quatre pour cent la ko fekkoon vingt quatre pour cent deux mille dix neuf dana àgg soixante pour cent ci loolu ba mu ñëwee gis nga am na ñu bëri ñu fi nekkoon bi mu demee xalaat gis na vitesse bi muy demee yéex na mu tànn directeur général baaba Diallo mi nga xam ne ñu bëri xamuñ ko parce que ingénieur la technicien la loolu looluy liggéeyam mu dénk ko liggéey bi yaakaar naa 31 décembre 2016 am na loo tudd ba ngay wax ba muy jël ay engagement wu ay affaire wu fichier électoral yooyu mhm. ci la jëlaale woon aussi engagement wu dorsal bi nga xam ne moom moo nekk Fouta ci la ci la ko waxee woon ne deux décembre 2016 bëgg na au mois 100 kilomètres de 100 euh, kilomètres de ligne moyenne tension mhm. waaye diggante 31 décembre yaakaar naa ak mois de mars inauguré nañ ko ce n'est plus des rêves nañ wax la réalité il Amor Fil moom man man pour man sax il la ba may jàng nekk xale pour man île la c' est à dire c' est une la nga xam ne bokkul ci biir Sénégal. Mhm. mais bam mu fa demee keroog di inauguré képp ku seetaan tele xam nga ne Sénégal lañ bokk am na yeneen dëkk yu ko gën a leneen ci ci ci ci programme pinière boobu. wala leen ngeen laaj leen quatre vingt kilomètres euh, quatre vingt kilomètres encore de de route dem na boo ba ci daara seen saal bi fi mu nekk. parce ñooñu buñ amee courant am lépp aussi. danaa ñëw ci dinañu nangu. ci investiture yi. ñu ñu ne leen Samba Sall mooy seen député parce que nee nañ problème mu Sénégal yëpp problème investiture la actuellement ci wàllu assemblée ak prise en charge des besoins. non non fa laa ma àggali ci loolu nga baal ma tuuti. Mhm. Euh, euh, boo ñëwee ci côté ci côté électrification daal bi. mooy kilomètres yooyu ma la wax ñu def ko feneen nga jël euh, avant avant deux mille avant deux avant deux mille douze. taux d'électrification rurale un pour cent woon. Mhm. mais tey xoolal fi ñu toll. déjà Nations Unies seen bopp ñoom li ñu bëgg mooy. en deux mille trente ñu am électrification universelle. président Macky Sall en deux mille vingt cinq moom dafa bëgg taux d' électrification la Sénégal. cent pour cent muy mu ba ñëwaat ci député ci ci mm-hmm. ñooñu nga wax ñooñu. non xam nga xam nga xam nga li ma la wax rek laa lay waxaat du présent Macky Sall mooy fal député bi du président Macky Sall kese moo yor parti président Macky Sall parti ak coalition am lay waxtaanal def seen i député. Mm-hmm. ñeneen ak ñeneen def seen i député. mais ñooñu yaakaar naa askan wi ñooy jugé nécessaire que ne Macky Sall liggéeyal nañu ñun ñu dëkk Koungheul mbaa ñun ñu dëkk Kabakoto ba feneen balaa Macky Sall di ñëw yabi rien du tout Macky Sall ñëw ne defal ñu lii boo jëlee kaaw Nioro mais yaakaar naa képp ku dëkk département Nioro laa lay wax bu bu ngeen paree émission bi ku ci am jot weekend bi nga taal sax da nga dem Nioro euh, boo jëlee yoonu dingiraay bi dem ba posi kër ayib man fa laa dëkk huit ans laa la wax da ngay quitter pour dem Nioro da nga def au moins cinq heures de temps la nga xam ne avion du ko def Dakar Paris. Mm, pour génn. diggante Dinguiraay yi ba Kër Ayib mën nga dawal oto cent quatre-vingts teg ci kaasu ataaya te du tuur. looy wax député yi maire bi ñu leen investir wala ñi nga xam dañ bëggoon ñu investir leen parce que réew bi yëpp foofu la askan yu amee problème. non maanaam investirul la mu nekk boucan te bu fekkoon. non xam nga non non xam nga loolu xam nga député bu ñu investir askan yëpp la du askan yëpp. yaakaar naa la concerné député tey bu ñuy investir Nioro waa Nioro la concerné te nag aussi tamit la nga xam ne pour ñëpp la c'est-à-dire nga jël population bu toll ni département Nioro ñu ne ñaar lañ tànn c'est ñi nga xam ne ñoom politique ñuy def wala ñeneen yeneen mét yeneen parti ñuy alimenté ni ñu taxaw kaas mais xam nga ne département nga jël bu ci toll ni Nioro bala feneen ñu ne deux députés lay am ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ay ñu ngi ci politique bi guddeeg bëccëg ñu jékki-jékki ne ñaar ñii te du élection lañ ko defee te du leneen peut-être dañoo xool seen jàmbaarte ci parti bi seen liggéey te ñu am yaakaar que ne bu ñu neen indee assemblée nationale danañ leen conseil non voilà mañ am na tuuti lu ma bugga tontu seen bi ñun boo jëlee kaw ñooro laa lay parce que fa laa dëkk. Ludovic. Euh, euh, hmm. ñu ñooro ñu ngi investir président Moustapha Niasse ak Jéema Ndiaye Ba ku xam jéem a Ndiaye Ba yaakaar naa national ku ko doon ci Sénégal rek mooy jàng. mën ngaa maanaam directrice nationale laa la wax c'est-à-dire directrice état civil wala nangam xam nga ne au moins il faut nga nekk hiérarchie A ñaata jigéen ñoo fa nekkoon di jàppale Macky Sall bi bëccëg ñun suñ département laa la président Niass yaakaar naa administrateur civil de classe exceptionnelle ak ak envergure bi ñas am yaakaar naa ñun ñaar ci département Nioro mm. depuis indépendance ba léegi mm. euh, wax ci amu fa ba léegi ñu ko investir ci département non si non si ko accepter Samba non si dañ koy accepté parce que am na lu mu def xam nga ma ñëwaat ci programme Nioro bi parce que moom moo nekk moom ci APR amoon na ñoro mais coalition lañ demee te moom moo jiite coalition bi ci bi département Nioro ci loolu dañuy toog ñun di dégg muy wax ak président boo jëlee programme deux milliards yi def man ci biir Nioro laa lay wax du ma wax sax peut la nga xam ne yoonu dingiraay beeg yooyu Nioro tey canalisation yi fa nekk laa wax boo ci dawalee oto mu jaar fa amul France amul Ndakaaru Njaay gii man wàcc naa ba ci kano yi ba may génn dañ maa ci loxo. ci yéen ci yéen la ñëwee ci yéen la ñëwee. Macky la ko def. Hmm. kon Macky Sall ak coalition hmm. président Macky Sall ak coalition. Hmm. ak ñoom Moussa oh, oh, xam nga donc donc xam nga xam nga xam nga dafa am benn ma ñëwaat ci wàllu ci wàllu li mu waxoon ne. Sénégalais yi au lieu euh, milliards yi ñu def ci assemblée nationale député yi ñu war a def non. parce que dafa am la nga xam ne du Macky ko maanaam du président Macky mooy ne damay def lii damay def laa fii la fekk élection député te président Macky Sall ne woon dama koy rapporté ñoom ñoo njëkk a kaas lu ñuy wax sàcc nañ élection yi dafa ragal du gagné Macky Sall président Macky Sall démocratie bi am ak engagement yam jëloon 31 décembre 2016 mooy Sénégal 45 listes di fi doog am. ci c' est à dire lam waxoon lépp lu mu génnee ci kàddoom. noonu la ko respecté parce que bu doon loolu. yaakaar na des mandat bi. ma ñëw non. non non non damay ah, continuer d'accord non non waaw non non ci mandat waaw mandat bi tamit dama si ñëw. Mm-hmm. non xam nga mandat bi président de la république Macky mm-hmm. dafa taxaw ne lii laay def waaye ci loolu comme li nga wax dafa am fa nga xam ne fa lañ ko canaliser du moom moo ko def loi la député ya fi nekkoon constitution bi lii la wax bu ñu ñëwee ñi nga xam ne ñoo yor wàllu loolu ne kat lii nga. pour loolu doon mm-hmm. lii moo la koy permettre. Mm-hmm. donc nag ci loolu nag. moo moom xamu ko woon. Mm-hmm. te man ay conseil juriste ay professeur d'université yu nekk palais. ñu mm-hmm. leen di fay suñu àll. ñooñu ay tailleur lañu non non non ah, ay tailleur lañu. xaaral sëñ non non sëñ bi dafa la xamuñu ko non xaaral maa la. président conseil conseil du Macky Sall. waaw yàlla rek. ma mosu koy wax mag président Macky Sall ba mu koy wax booba booba yiliful président conseil conseil booba falu ko. booba conseil yooyu ngay wax ay tailleur lañ c'est des modèles booba du moom moo fa teg booba mu ngi campagne am yi la nit ñi def da yoon ba mu ko waxee ñu ne ko loolu mën naa nekk mais il faut li nga xam ne moom la constitution bi wax moom lañ def xam nga xam nga tey déjà dalay dalay leer ne mhm. même bu doon référendum yi élection présidentielle lañ ko defoon billahi wallahi wal azim yàllaa joxe nguur dana ko doon gañewaat mais mais respecter mhm. la constitution bi wax moo waral mu ne nañ dem référendum bu fekkoon ne kay vraiment Sénégal yi bëgguñ ko woon mu toog te ñoom ku jegi ñoom ñoom réew mi ak ñeneen ak ñeneen il pesait tellement le poids mais noo bàyyi gagné d'accord non bàyyi gagné lu tax noo bi gagné bëgg naa def ñaari tontu rek waaw ci waaw dama def ni période bi son excellence c'est le terme bi son excellence di nekk président de l'assemblée bay woo l'ancien ministre d'état de la terre de l'air comme on l'appelait mhm. c'était pour defar ko def naa da ngaa fàtte épisode boobu. fàtte ma. Mamadou du il a dit que man maa andi question bi. la ñu ko reproché sax mooy Karim déggul wolof su ko andee gars yi mën nañ ko massacrer. Mhm. mais il voulait raxas Karim sangu ko ci ndox mu set wecc. présentation bi moo tax ma ni xëy na nekkoo woon foofu. Mhm. Azer nga nekk. waaw ah. directeur bi fa remplace kii ki mu remplacé lu tax ñu jëlee ko. choix énergique u Sénégal dañ ciy wax dëkk lañu bu nga xam ni dañuy wax ni agriculture sénégalaise seen yaakaar ci culture lañ ko teg yàlla defal ñu zone bu amul fenn les Niayes lu fa président Macky son excellence prévoir ñaari centrale à charbon te études ci àdduna bi yëpp wane na ni yooyu di jóge ci fumeau charbon bi day yàq njur am na dëkk bu tudd gàdd ak ngomeen boo demee Mboro amuñu ndox mu ñu naan ñax ma fa ne jur gu ko lekk da ngay dee ndax fumier yu ba ñuy jógee donc zone boobu nga xam ni 65 pour cent de notre production horticole fa lay jóge ñaari centrale à charbon la président bëgg a tëgg te non seulement day yàq mbay mi mais ndox mu tàng ma ñuy sotti géej pour produire de l'électricité day yàq la pêcherie de Kayar te xam nañ ces aspects pélagiques ñoo may Sénégalais yi amul tous ñu mën a lekk ba normal. jën yu mel noonu. choix énergie ku Sénégal dañ ko war a xoolaat ba fii ci Bargny chaque jour nga dégg waa Bargny ñuy jàmbat central à charbon bu ñuy def en pleine ville xam nga wax naa sànq laboratoire yi nekk palais dañuy nax président munoo wax ville verte jam ñaaju munoo wax nouveau pôle urbain munoo wax AIBD aéroport international de Blaise Diagne nga jël à cinq minutes au cœur de cette zone nga tëgg fa central à charbon ñun ñëpp bu ñuy nekk xale liir nañ germinal ce que le charbon faisait dans le poumon des des mines. dans Étienne Lantier Ousmane yaa ngi ñëw ñëpp ñu ngi rappelé wu image révolution industrielle buñ la doon defal image graphique ville dañ lay defal une usine avec de la fumée loolu amatul fenn léegi booy romb jam ñaar yaa ngi gis batri batterie buy saxaar usine fer buy saxaar nga ñëw dolli fa usine charbon pour produire de l'énergie dans un pays bu nga xam ni découverte pétrole yi ak gaz bi dafa yéem àdduna bi fu mu nekk nii donc Samba loolu la ñuy wax nañu xoolaat choix énergétique yi wax nga mbiru tax port de Dakar bi ñun on est presque le pays le plus enclavé de l'UMOA ak suñu yàkkamti defar quarante ñoo gën a enclavé port de Dakar pour dem fa tu n'empruntes pas une rue une ruelle ngay emprunter tali yaraax diggante Kër Xaadim ba Surnos ruelle la nee nga diggante Ah, Paos coto ak Kër Ayib Dingiraay ak Kër Ayib ak Kër Ayib nii la mel c'est lisse exact dix kilomètres de por Surnos ba Kër Xaadim da ngay def ñaari waxtu wala pour génn port ana émergence ak por bu nga xam ni bala nga fay dugg wala bala nga fay génn nga def ñaari at te bés bu ne mille deux cent camions ñooy génnee por wala dem ci biir Sénégal ak dëkk yi ñu wër nga nar a perte ñaar wala ñetti waxtu pour dugg ci port boobu donc moo tax ma ni rek euh, sàmba xëy na am na place am ci laboratoire yooyu nga xam ne ñoom ñoo wër son excellence ñun dañu bëgg suñu amee président ni ñu àndee woon ak moom aujourd'hui ñun am nañu ñeent fukki liste ak juróom ñaar tey suy bari sax ay coalition la comme suñu bas Idrissa nekk fa Khalifa Sall nekk fa sëñ Mansour si jamono nekk fa Cheikh Bamba Dièye nekk fa coalition bu mel ni suñu bos dajale parti yu mag yu mel noonu 47 listes yi nañu ko xoolaat ci seen laboratoire yi xam nga lan ngeen togg dañu jël leaderu opposition yi ku ci ne ñu créé leen liste de quartier Malick fam fiefam Guédiawaye Idrissa fiefam Thiès ku mel ni Baldé fiefam Ziguinchor ñu créé ay liste de quartier nga xam ne day effriter sa bloc électoral mm. daf koy effriter leen boo demee Guédiawaye Daaru Xan am quartier Mbodd am am am am listam Waqinaan am listam nga dem Thiès euh, Taaxi Kaw am listam Fayu am listam ba Ersan euh, am listam leadership yooyu ñu éclaté dafay éroder l'électorat de Idrissa et ni nga xam ni mën nga instruire Sancu Bamambé wala Paos Koto ngay vote école trois bu Thiès da nga fay dugal ay électeurs ba leader bu ci ne sa bureau de vote def nañ la koy ñàkkloo non seulement érodé nañ sa en éclatant les listes autour de toi mais dañuy yokk ay électeurs sa bureau de vote moo tax ñun Mankoo Taxawu Sénégal comme comme ni ñu ko waxee ñun bi ñu naan bi Khalifa Sall naan Mankoo Taxawu Dakar Macky Sall dafa xoon candidat Macky Sall candidat Macky Sall dafa xoon dekkal ngor candidat Macky Sall wax yoonu yokkute yàggul tuuti loolu désuet xeew yi mu ñuy wax émergence te suñu émergence fukki at fi île du Cap-Vert foofu la ñu jëmee fi île du Cap-Vert tey donc dama bëgg wax rek réew nañ ñoo bokk réew mi gagné coûte que coûte c'est moche mm-hmm. ce qu'on a vécu ci référendum bi xaalis bi tuuru ministre des finances engagé wu directeur nationaux yëpp engagé wu inspecteur des impôts inspecteur des domaines li ñu gis Louga meetingu trois cent millions de fonctionnaire yooyu dafay waroon dakk c'est pas que son excellence né après les indépendances jànge école sénégalaise moo waroon favoriser loolu ba directeur yi ku ci làqtuwul ci APR rek dafa nga ni doo tekki dafa ñaaw xam nga tiitaange bi lan la Ousmane ñu séquestrer le vote des Sénégalais c'est-à-dire nga xëy voter déjà dinañ la relentir ci nombre de minutes yi ngay jël parce que ñoom ñoo am maîtrise transfert militant gis nañ ko gis nañ ko parcelle parcelle dégg naa Moussa si démb mu ni am na quatorze mille nouveaux inscrits au parcelles te moom résidence yi ñu joxe foofu moo ko signer de sa main il en a signé mille a tenu comptabilité comme Idrissa avait fait au franc près ñi ngay wax bàyyi nañu mille 2012 bi son excellence di ñëw à l'exception du PDS toute l'opposition était avec lui mais ku ànd ak fukki nit ak juróom-ñeent ñu lay bàyyi ba mu des kenn ñafa des di ay mag ku ci ne tas sa parti pour ànd ak yow ñii doon xaar marocain HCCT ñëpp gis nañ ko ba ñuy référendum sa télé bii toog naa fi ni la lu ñuy xàllal tanoor la loolu lañu ñu gis Moustapha Niass ba muy tas AFP ñëpp fekke nañ ko pour satisfaire kan d' accord seen dinañ ci dellu si léegi léegi xaaral dama la ñaan dama dama la ñaan xam nga dafa am lu ma laajaat te jël rapidement waaw voilà non may ma rek tuuti am am lu ma ko wax leeral gaaw ma demaat ci technicien waaw dama affaire électricité waay non non non non non non non non <laughs> non non man affaire yoonu port bi ak ay ay yeneen laa lay leeralal yarax laa dëkk may ma rek ak non ak foo mën a dëkk damal ne da ngeen di bàyyi da ngeen di bàyyi seen lépp ngeen koy accentuer ci biir Dakar Dakar n'est pas Sénégal président Macky Sall bañ koy fal doo ko fal ñoom kese du waa pale baa ko fal sénégalais yi ñoo ko fal ci loolu yaakaar naa c'est la première fois ngeen di gis ci histoire président muy wër Sénégal di fa defi ay conseil des ministres décentralisé conseil may ma rek may ma rek ngir ngir yàlla ngeen di xam nga man booy wax dama lay déglu parce que dama lay déglu pour xool li ngay wax bu ma amalee njariñ ma jël ko su amalee njëriñ Sénégalais yi ma wax leen ko su su ma la ci mënee tontu luy amal njëriñ Sénégalais yow nga dég ko man du ma wax ay waxu man du ay politique indiwu ma fi bu doon politique rek wallaahi du ma fi ñëw. la fi andi Sam. <laughs> Ah, d' accord mais déglu rek dama la ñaan rek. xam nga ba ngay wax rek déglu ma. dama la développer nga jël ci yoonu port bi nga wax mais yow Idriss Seck mi nga tudd mais yaakaar naa boo ne Macky Sall président Macky Sall à tous les pouvoirs ku ko ëppoon pouvoir amul. directeur de cabinet du président de la république premier ministre xaalis ba ngay wax këpp nañ ko yaakaar naa waxuma la sax moom jatara rek xamoon jatara rek nga tekki Sénégal gii laa nekkoon di jàng xamoon ko rek jatara laa de mosoon am benn fonction bu officielle xam ko rek xam jatara rek laa soo ko séenee ay millions ngay gën fam ne muy benn maa la ko wax pèse moom yaakaar naa xaar maa la primature hmm. sori wutoon yara goog nga dëkk primature ak yarax ne primature fi Idriss Seck nekkoon laa la fam di liggéey suy dem cees jaaree rond boobu nga tudd xanaa moom xanaa moom gisutoon bëreetal boobu nga wax pour mu defar ko pour mu defar ko moo nekkoon chef du gouvernement doon def la Ablaye lu ko neex di ko doon dindi lu ko neex nam de nam nam nañ ko joxe ay milliards mu ne day defar cees def ci lu ko neex la des mu damm ko ci poosam lu waral ne moom ci loolu newutoon ne su may dem Thiès ci rond point bii laay ram xaaral donc nag yaakaar naa ñun buñ ko talagul d'abord. yoonu port laay wax moom yoonu Thiès. non buy dem Thiès fa jaar dama lay wan xanaa même buñ ko ko waxul laa wax du ñàkk muy dawal otom ñu koy dawalal mu gëstu seen yoon bi soon yéen seen yoon bu ndaw boobu xam na la fa nekk na nga ko xamee ba di wax président Macky Sall lu tax defaragu ko président Macky Sall nag waxum danaa la wax lu tax defaragu ko du def li ngeen bëgg mooy lan ñëw lépp xëpp ko Ndakaaru non non non non président sénégalais yëpp la au moment où tëb na yoon bii nga dem Ilal Touba. te booy dem dangay da ngay romb Thiès ba Idrissa Seck dëkk xam nga ne yow këll yow tey autoroute à péage moom ak tey fa mu continuer xam nga ne àgg na Mbuur tronçon bi dañ ko dañ ko ubbeegul. am na surtout gouvernement Sénégal bu yeggee non non ma rek non non ah, ñu a def lu ñu non dama ñaan déglu ma rek dé déglu ma wax nga mbiru aéroport. ay mhm. AIBD xam nañ ñañ ko dénkoon waa Saudi Ben Laden lekkee kaay xaalis la woon dortoir d'argent la woon ba mu xam ne lii jëmul kër engagement la jël. ci la éliminé ñooñu jox ko Turquie yaa 31 décembre lañ ko doon inauguré soo jëlee sa passeport nga dem AIBD soo demee machine yi ko aéroport man man mii maa la ko wax pare na. amutoon vision. Mhm. du dem booy du dem booy inauguré war a inauguré 31 décembre aéroport di réfectionné waat ancien aéroport bi. moo lay wan ne vision may ma rek tuuti rek. Mhm. dépassé na benn aéroport. Mhm. nga xool tey bu njëkk ba da ngay dégg ñu ne la avion ba panne na vol bi retardé na danañ toog laa la wax. pendant ñetti fan ñeenti fan sa vol du mën a dem li waral tey boo ñëwee ay question d'heure la xaaral tuuti nangam nangam nangam. ni ngay wax c'est la Paris histoire de l'aviation non non non déglu ma rek ngir yàlla non non waaw sëñ bi dégg xaar ma rek lii rek xool lii laay daanle xoolal lii laay daanle dama la ñaan rek dama la ñaan s'il te plaît lii laay daanle ne tey am na benn structure bu Sénégal am mooy line maintenance ASS nga xam ne tey par cent quarante cinq nga xam ne tey Afrique de l'Ouest Sénégal rek moo ko am benn agrément ay diñ fi sénégalais ñoo ko toppatoo ba mu ne tey avion bu fi mënta paan mhm. ak avion bu mu mën a doon ay avion européen ay sénégalais wala ay ña nga xam ne sénégalais ñoo leen di fey di leen liggéeyoo man damay fréquenter aéroport toujours ñoo koy defar ñu pare avion yi ab naaw Samba Sarr comprendre te ay sénégalais dëgg la ko dénk Samba Sarr donc ma ñëwaat ci wàllu industrie ak courant yi nga wax léegi boo mayul ñun dañuy lakk ci industrie non ah. non non daf ne ah, ICS ak ah, xaaral non ba mu yokk coupé ko da nga bàyyi a àgg. non wax ci wàllu lii rek laa jeexal ci wàllu ay ay centrale à charbon centrale nangam mais yaakaar naa da ngay dem Japon ku leen gën a émerger amul ku leen gën a moderne amul ay nucléaire ngay fekk ci digg dëkk yi hmm. yaa nag benn affaire bu deful su créewul benn centrale à charbon parce que aussi lépp tamit énergie conventionnelle mënu ko def lépp énergie renouvelable tolloo guñ foofu buñ nax suñu bopp fu ci nekk dafa am noo koy alterner su deful nit ñi taxaw kaas bu defee industrie yi gis ngeen ministre Aly Ngouille Ndiaye guddeeg bëccëg la lañuy def mais léegi nag ñoom au lieu ñu taxaw ne merci ñu am honnêteté intellectuelle fu ñu koy mujjee ba yeeg maanaam di détourner mbir mi di nax sénégalais yi taxaw ne encore wala <laughs> Ludovic Rosner kon léegi bu ñu àggee par exemple tey jii ci li nga xamante ne Mbacké Seck wax na ko mm. euh, te mooy itam gis na ne moom daal ay kuwaak am na am na itam loo xamante ni tiit na mu jëm ci chance foqate ak yu mel noonu parce que techniquement am na yuñ ci tiit yoo xam ne yaa ngi ko gis te moom gisu ko te moom dafa war a bokk ci mi ñu gisoon opposition bi boycotté woon élection tey bu rapport amul boycott amul est-ce que victoire bi aussi du am luñ ci mën a indi coow loo xam dañ fiy desaat di ci wax waaw euh, mun nañ am tiitange waaye dañ ko teg ci lu leer ndax amoon nañ fii référendum référendum élection la dañu war a am neutralité presse bi neutre waa gis nga ni presse bi neutre y compris la presse privée foo tourner oui oui oui jël ay woykat indi lañ ci télévision bi oui oui RTS et cetera ana nu mu tuddati CNRA nu mu tudd mm-hmm. ah ministre de l'intérieur jël bulletin bu blanc def ci écriture bu noir mooy lu normal lu leer kan na ko kan na ko jagleel wi lu mu jox noo bulletin bu rose clair taxi taxi écosur bu blanc mais c'est flagrant. tànnal ñu ko. waaw <laughs> loolu boo ko gisee mën nga am ci tànk nga xalaat ni est-ce que dañu am neutralité ci élection nga xam ne carte yi pareegul euh, ak problème yu bari waaye xam ne li li may wax lu am importance mooy euh, euh, politicien man nam koy méngale xale ngeen baal ma bëgg-bëgg ba nga la xam. di jaadu du bëgg xalaat xalaat bu sori. xam nga loolu liim liim liim li mu Macky Sall liggéey dafa ku fi lu Ablaye Wade def wàcc na kenn ci réew mi ku weddina liggéey na même APR weddi wuñu ko koo tax wàcc kon boo liimee centrale charbon euh, Ila Touba et cetera et cetera doo ku liggéey ku liggéey lu ëpp loolu sax wàcc kon yow mën xam ne liggéey képp képp du la a falu jikko nga élection bu ñëwee dina am ñaari cas yoo xam ne dina riir ci boppu électeurs yi te loolu ay erreur régime bi la benn bi Bakke Seck wax na ko mooy mandat présidentiel xam nga am na ku ma waxoon ne yi dootuñu kaas dootuñu lakkati pëna dañuy xaar rek élection ñu sanctionné ndax boo toogee pendant quatre ans dana demee wàññi sama mandat ñëpp dégg ko nga wax ko sax bitim réew ba ne waxul décision conseil constitutionnel de ma décision est irréversible damay wàññi sama mandat nga jóg dem léegi ne conseil constitutionnel moom ko teg xam nga loolu lu muy tekki loolu mooy tey sa nekkin bi tey ci boppu réew mi du sa coobare am déet yaa ne da ngay wàññi sa mandat cinq ans man sama bëgg parce que bu muy def discours ne mënul ne lan la wax nit ñi sama yéene la woon waaye conseil constitutionnel ne mënul ne loolu mooy man li ma toog fii tey du man conseil constitutionnel la bu doon man cinq ans ma arrêté moo ko wax de inventé wu ma dara erreur boobu leer na ma ne ku dugg ci urdu bi dina riir sa bopp deuxième erreur tëjum Khalifa Sall dañ ko jiiñ ñi ko juutu ñu ngi koy def ngay gis moom mi ngi koy def ngay gis tant que mi ngi ànd ak Tanor Tanor ànd ak Macky Sall kenn wax président Macky Sall kenn wax ko dara de waaye ah, bi mu fippoo génn teg ko kaso tumuranke ci yemale Sénégal loolu mooy problème am justice ñu yemale citoyen yi ba jox la benn exemple dim nañ jox nañ liste procureur ne ñii lañu waroo dikk ku ci ne Ousmane Ngom Karim Wade ak ñeneen mais waxtu ba Karim Wade ñu koy jugé ba tëj ko Ousmane Ngom fu mu nekkoon ci avion présidentiel créé pourtant ñu bokk liste état de droit mooy loi yëpp ñu ngi ko appliqué à tous les citoyens loolu mooy état de droit loi yëpp ngay jël appliqué ko ñëpp waaye bul appliqué ñii sa xarit bàyyi ñi li moo tax ma ne la kenn waxu Macky Sall deful dara de man duma ko mos a wax c'est pas vrai xëy na doyul xëy na rafetul xëy na lii d'accord bay liggéey na waaye ku mën a lii Macky Sall lu mu liggéey su ci objectif waxal aussi erreur bi mu def te am na boo dama le policier day mel ni xare ci man quoi mm-hmm. day wax waaye Macky Sall def na lii def na leen mais mais nul n'est parfait Macky Sall bu noon ne quatre moo ko man yonent bi gën ci binde balaa mu jul dee ne euh, astafirlah yàlla baal ma xëy na juum naa te teyu ko hmm. yoo nga bëgg a nekk un homme parfait xam lépp lu mu def baax na loolu dafa mën a nekk il faut objectif dans la vie soo waxee nii Macky Sall def na erreur bii def na mais waxal aussi erreur bi mu def boo ko mënul wax parce que ragal ñu dàq la sa parti parce que loolu moo am ci parti ah alors xamul noo ko waxee d'une mais hmm. par exemple am na yu baax waaye am na ay effort a hmm. mais ku la jox micro ngay responsable directeur de société euh, euh, député amoo lenn la wax dul tagg Macky Sall jusqu'à la fin war nga xam ni yaa ngi yaa ngi ci erreur ah. hmm. ndax loolu mënta nekk amul benn doomu aadama xam ne bu parfait rek lay def. d'accord waaw nag foo ñu xalaat ko. Ludovic Rosner Ibrahima Diop euh, effort yooyu nga xamante ne ñu ngi koy def ni ma doon wax Samba Sànq il on demande encore encore boobu nga xamante ne tollu nañ ci tey est-ce que jàpp nga ne askan wi. liñ koy laaj ñu ngi leen ko koy joxe wala boog ni leen ko waroon joxee ñu ngi leen ko ko delloo ci li nga xamante ne dañ cee bokk ci réew mi di ci cotiser. disons que du point de vue de la réflexion que j'ai à faire autour du vote euh, et des analyses suite à des recherches. wala faites wala maanaam gëstu yi ma def mhm. ci li nga xam ne moo am ci biir réew mi. li ma gis un peu parce que damay dem man ci gox goxaan yëpp donc ci réew mi di jokkoog ñu bari tamit gëstu yi li mu indiqué c'est un peu bizarre paradoxal contre et c'est bokkul ak li ñu fi wax fii parce que li ma gis mooy ci xalaat bi mooy que d'abord lu tax mu gañe koon référendum bi lu tax wii bi gañe alors que opposition bi dafa battroon campagne mais wii bi gañe ko parce que bu doon loolu am na non bi mooy gañe wii du gañe loolu mooy ponk bu njëkk bi mu am solo trop ci gëstu bi ak ci analyse bi parce que wii bi dafa gañe ba gañe Ndakaaru donc mu indi benn question de fond est-ce que aujourd'hui ñi gañe woon Ndakaaru ci élection locale yi ñoom ñooy majoritaire ba léegi ci biir ndakaaru boo xoolee bu baax bu ñu xoolee suffrage yi ni mu demee loolu Rosnar mën na ci attesté et que ah, waaw xam nga HCCT HCCT maanaam boobu élection boo xam ne dañoo ay nit la yoo xam ne fal nañ leen ba pare ñoom ñu war a falaat fal nañ ba pare ñu leen war a falaat donc ñu ngi ci benn situation boo xam ne bokkul ak une élection populaire boo xam ne suffrage universel moo koy définir. mais ñu nekk ñu représentative aussi d'une partie oui, de la population. oui non attendez attendez la représenta maanaam représentativité dafa am dafay variable du définitive ah maanaam mën nga gox bi am leadership ci gox bi ci waxtu sàngam ba waxtu sàngam ci date sàngam ba ci date sangam mais beneen date ñëw wala beneen situation am nga amaat nga dootoo majoritaire ci zone ci même gox boobu loolu moo tax renversement électoral di am ah donc suffrage universel moo demee noonu mais ki ñu fal ba pare buy voté bokkul ak ñiy fale dëgg dëgg dëgg bu ñuy vote donc analyse boobu la ma njëkk a jox ci beneen poñ bi ëpp solo mooy que réew mi ci boppam naka la ñuy taxawee ci programme yi nga xam ne mi ngi am ci réew mi réew mi dëgg la ubbeeku nañu ci seen yenn njiit yi ci opposition opposition mi ngi am doole mais réew mi tamit mi ngi am doole parce que nombre d'électeurs bi dafa yokk population électorale bi dafa yokk macha allah et loolu ñu rafetlu performance yi nga xam ne en fait euh, gouvernement tant que formaliste et analyste mais ñu xool ne aussi opposition bi li mu liggéey ci biir gox goxaan yi tey jii nii am na yum ci liggéey yoo xam ne massifié wu na ci biir gox goxaan yi ak ci biir yenn situation mais dooleem dooleem buñ ko nattee xëy na ci gox yi nga xam ne même parce que loolu mooy expliquer benn phénomène les conflits conflits yi nga xam ne am na ci biir parti au pouvoir du propre parti au pouvoir rek aussi structure yi indi na ay jeexi jaaxa ci yenn par yeneen parti yi du ma tudd parti ah donc du ma tudd tamit conflit yi nga xam ne moom la nit ñi am yooyu c'est pas moom du sama soxla mais lii sama soxla mooy faits généraux yi nga xam ne ay faits constants la xam ne mën nañ ko poser comme étant des faits objectifs mi ngi nii ñu koy dund. tey jii de deux côtés yow. ci deux côtés interpellation nga def pour vraiment. disons que ci askan wi. ñi may ñi may interpeller dëgg-dëgg. ñi may waxal mooy population bi nga xam ne moo war a woote. population bi nga xam ne moo war dugg. électorale ak campagne électorale nañ am seen matuwaay ba ca war bu leen kenn bëmëx ci benn situation parce que. dañoo bëgg lii wala dañoo bëgg a conserver lii wala dañoo bëgg a jël lii déedéet parce que nit ñi man bokk ci sama xamxam xam xam naa parcours acteur politique yu bëri gis naa leen xam naa ku ne ba fan nga mën a dem ak la nga sañ a def ak la nga attan def même si jeune comme ni ko neen yi di waxee sànq naan li lii moo xew palais yooyu loolu du problème man li ma comprendre mooy que en fait conduite acteur yi conduite am ci seen conduite nguur jalal na leen lu ne tey jii nii nguur moo leen jaral lu ne ba nga xam ni li ñuy perte ci situation électoral dafay xaw a méngoog sax li ñuy perte ci ay faits accidentel et naturels en vie parce que ci campagne dañuy perte ci campagne li ñuy mobiliser ci temps les femmes li ñu leen di mobiliser dafay méngoog en terme de perte ci li nga xam ne moom la ñuy perdre lorsqu'il y a fête jour férié aujourd'hui lorsqu'on analyse la situation économique bu campagne jotee massification des choses mooy am de la chose euh, disons euh, personnelle et loolu nit ñi dañ cee war a am retrait je j'invite les populations à mieux observer le champ politique et à prendre leurs décisions selon ñoom seen analyse personnelle bi ñuy def des performances disons des des erreurs des uns et des autres et c'est ça l'option mais pas de conflit au niveau des populations bu xeex di am mm-hmm. na acteur politique yi xeex parce que gisuma fi kenn doomu acteur politique yu bëri nekkuñ ci réew mi et pourquoi et nous nous avons pris l'option de rester dans ce pays et pourquoi ces acteurs-là n'ont pas leur fils ici ces fils-là ne sont pas dans nos écoles. Et pourquoi Qui qu'ils soient, on les connaît. Donc c'est sous ce rapport-là qu'il faut désormais. Kon balaa ñoo ñëw safara si jàll mu des. Justement. Mm. Et il faudrait que, euh, disons, nos compatriotes sachent raison garder que ni ñii seen logique c'est une logique particulière c'est une logique des élites politiques parce que ñi nga xam ne par rapport à ces élites politiques là il faut être relativement méfiant tout au moins il faut prendre du recul avant de faire un choix et une décision mhm. loolu mooy élément principal mhm. le deuxième élément bi nga xam ne bëgg naa ko signaler mooy l'organisation de débats francs et justes techniquement viables boo xam ne nit ñi nañ ci mën a apprécier les propositions des uns et des autres parce que me dit-on que euh, l'Assemblée est constitué, disons, de ressources humaines pouvoiristes. Mais je constate et je connais que dans la frange opposition de l'opposition am na tamit ay ñoo xam ne ay pouvoiristes lañu et que je connais scientifiquement analyser disons leur gestion hein donc loolu muy loolu aussi day génn donc méfiance boobu mm-hmm. il nous faudrait que pas que ñu jël la reproduction de la situation électorale de 1900 de 2010 à mille 2012 parce que dans l'analyse day génn que ni situation ba ñu dundoon de 2010 à 2012 moom moo reproduire wu et que donc dañoo war a sanctionner comme ni ñu sanctionné woon en douze loolu c'est c'est une appréciation boo xam ne bu ñu ko defee bu ñu ko entraîner du kii bu juste du analyse bu juste parce que parce que l'emballage politique mooy loolu nag. les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets wala causes yi. ce n'est même pas les mêmes causes. Hmm. ce ne sont pas les mêmes causes. sax ah. Hmm? ce ne sont pas les réellement. xam nga Rosner mi ngi ne déjà que c'est pire <laughs> ah. bon man du ma egg ci appréciation yooyu en termes de qualité man je reste un scientifique hmm. mais ce que je veux dégager comme élément d'observation mooy que on n'a pas une situation de reproduction politique au Sénégal amuñu apparemment ci boo xoolee bu baax musuñu koo am mhm. musuñu ko ak ni mu bindoo ci nekk ak ay particularités mhm. et qu'il faudrait apprécier ci seen juste valeur ak seen juste contenu sur mhm. surtout scientifique surtout Mbacké Seck euh, nee na mosuñoo am boo xamante ne c'est similaire waaye dafa mel ni am na dénominateur commun boo xam ne moom na maa ngi ko ci seetlu mooy léeg-léeg rupture de confiance dinay am diggante acteurs yi rawatina nag côté opposition ak pouvoir bi nga xamante ne tey organisation matériel ak technique ak yëpp ñoo ko yor ci wàllu euh, élection yi te ñu àggoon ci 2007 ñu gis euh, mu mel ni boycott bokkul report bokkul ci taxawaay bi ñu taxaw tey vraiment lan la mën a jur ak lu ci mën a nangu ak xel ak ko waaw rupture de confiance dafa am ci li ñu dund muy référendum bii passé nga xam ni wax na ci lu bari yéey nañ ci yàbbi nañu ci hmm. ministre de l'intérieur ñun waa non moo ñu choisir loon couleur moo ñu imprimer le bulletin moo ñu defal suñu affiche ba muy joxe aussi carte électorale bi nga xam ni boo duggee ci bureau de vote bi ki toogal oui fa mais Sénégal yi yëpp ki toogal noo du am électeurs yi war a voter foofu moom moo organiser loolu jëfee ko noonu cest dire kooku boo leen waree séq waxtaan amuñu carte électorale ñi war a voté ci bureau de vote bi xam nga booy ñëw di voté liste kii day am liste ñiy voté foofu mais la liste des votants mhm. ki nekk oui day am list bi ki nekk non du ko am dans tous les bureaux de vote du Sénégal j'étais mandataire de Dakar xam naa lu may wax Samba nee na bu ñu tuddati Ndakaaru mais <laughs> pooru Dakar benn la fi poor da nga wax ñaar ce port qui existe depuis période coloniale pour dem fa sooy def ñaari waxtu wala ñett facteur de contre-performance la c'est contre-productif tout à fait c'est anti-émergent loolu émergence boobu ngeen gëm yoonu port bi du émergence loolu laa bëgg wax foofu wala xanaa yéen xam nga bu xayma budget Sénégal. je crois que la exactement. la question se pose est-ce que am nañu ay options pour defar loo fait dina situation boo xam ne dina permettre une fluidité de la circulation en règle générale comme suñu feebar développement la et dans les voilà un peu et sur xam nga loolu laay wax un peu il faut euh, ma jëlaat sama kàddu maa yor kàddu la permets-moi rek ma terminer waaw xam nga rupture confiance boobu ma ñëw ci mhm. président Macky Sall son excellence dafay def lu bari yàkkamti ak gaawtu président dañ ko fal mois de mars mu dem ndar le 6 juin mu annoncé acte 3 tey mairie Sénégal boo wër maire ba mu des maire yi nga xam ne ñoom ñoo ko yore boo duggee Dakar fu mu nekk nii fukki commune ak juróom-ñeenti yàq commune de Yoff bi nga xam ne ministre de la décentralisation moo ko yor moo am ay chantier yenn yëpp taxaw na soo demee Géejawaay chantier yaa nga fa pikin maire yi chantier taxaw na sauf maire yu yore loolu moo fi am dañ lay mairie Dakar suñu budget dafa yokk presque 66 milliards yegg fu mosul yegg xam nga lu ko yeggal foofu parce que dañu am fukki yu nga xam ni dañ si dëgg seen tànk pour bañ ñu exécuter loolu mooy coow ñun ñooy mairie bu nga xam ni dañu jàpp suñu maire ak fukki collaborateur ak juróom bennam ni ràtt si katu ñu ni bu kenn wax waxu Dakar cest dire waruñu jël kooru contrôle état yi ñi nga xam ne ñooy sant saytu Sénégal ñoo yemale citoyen alpha ak citoyen lambda ñoo war a yemali dëkku kaw ak dëkku taax ku ànd ak yow doo ko fa yónni ku àndul ak yow nga yónni ko fa jàpp ni rat ken xamul la ñu jàppee suñu maire de Dakar lu fi amoon la depuis toujours même bu baaxul moom ci boppam président ak i nitam bénéficié aussi lu nekk bureau Benoît Sambou ba nekkoon maire Dakar mun na la ko wan bureau président Abdou Mbow bi nekk euh, building communal mun na la ko wan Moustapha Diakhaté moom ci boppam nee nañ bàyyi leen wax yi mbay Ndiaye noonu ba ñuy dem campagne 2012 Khalifa dafa génne xaalis génne carburant jox ko Saliou Keita bu plateau contribution ci même kees donc li ñuy wax rek vérité dans les Pyrénées autre chose au-delà ñun li ñuy bëgg Sénégal mooy président bu yemalee ñëpp bu faloo fàtte parti bi ko fal ngir njariñu askan wi mais munoo nekk président 2012 ku jegi yëpp àndoon ak yow mais bu ñuy lim ñi nga xam ni boddi nañ la dañuy commencer sa ancien premier ministre lim sa ministre de la jeunesse et des sports lim sa ministre de la communication lim sa ministre des des des NTI ñu ànd ci ay parti bàyyi la parce que amul concertation ñun réew mi ba ñuy bàyyi Idrissa loolu la waxoon Macky danaa la soutenir te du ma poser benn condition boo ma laajee sama xel ma wax la ko sama xalaat ma wax la ko soo ko jëfee baax na boo ko jëfewul baax na. mujj gi mu ne da koy indi ci mbedd mi di ko wax ci roq bi. président la ñu fal il faut mu gëm loolu parce que ñaar wala ñetti yoon wàcc na aéroport de Yoff li muy wax mooy je le président la république fëgg dënnam mel ni am na keneen kuy décider dans la république xaw ma c'est une xaw ma c'est un xaw ma c'est un moom lañu fal jox ko budget bu ñu musul jox président la république ba Sénégal amee indépendance ba léegi budget bu ñu musul jox président moom fi presque li muy jëndee teer bi moo doon budget bi fi Abdou Diouf di jóge bi fi Abdou Diouf jógee ñun ñëpp daanaka jeexal nañ université comme bërki démb budget bi ful na ko presque ñeenti yoon wala juróomi yoon kooku boo liggéeyul fii ñu toll ci Sénégal du fu ñuy takk ay sareetu luuma lañu ñu war a defar ay tali la war a defar tali yu baax ay infrastructure yu baax la ñu war a defar wàcce wàcc ni ñuy wàññee courant bi ñuy yokk wàññi bi parce que am nañu possibilité bi performance yi ñuy wax ci société yooyu du seen xarañ mais pétrole bu wàññeeku ci àdduna bi la moo tax yooyu wàññeeku Mbacké Seck leen ci dellusiwaat Samba Sall nga xam ne kon tey parce que am na ci poñ bu ma gën a soxal mooy séparation de pouvoir boobu mu wax nga xam ne assemblée da ci am solo moo jiitu ci lépp parce que mooy saytu mooy contrôler mooy woote loi yi ci boor boobu aussi nga xam ne jàpp nañ ne daal yoon moom am na ñu ko yoonal waaye ñi jàng yoon defatuñ ko ci réew mi ci jaxasoo boobu nga exécutif ak judiciaire euh, nga xam ne nee nañ daal ñi war a atte daal atte tuñ waaye dinañ di atte loo wala buñ atte ba jébal technique léegi nag dafa am verdict politique bu ciy génn côté boobu oh, xam nga. sàmm bu ma tontu woon. Hmm? non tontu ma la non non Euh, euh, man ci lii seen wax rek laay tontu. waaw da ma tontu. waaw maa ngi taxawu Sénégal laa fi nekk bul ma tontu. waaw léegi tontu ma. <laughs> tontu la sëñ bi. <laughs> xam nga ñoom benn problème rek la ñu am. problème bi mooy il faut ñu il faut ñoom vision yi ñu am bi ñu am ñoom bi ñu am il faut ñu xam ne président Macky Sall dépassé na ko de loin parce que quand il me en terme en termes de réalisation en termes en euh, en termes de yi muy posé ay actes. de rupture je mm. waaw si man vision laa laa mm. parce que dafa wax terre bi. Mm. bu waxee terre bi bu doon ñoom ñoom ñoo fi toogoon wala ñoom ñu toog fi wala ña fi nekkoon pour ñoom war nañoo mën a dem ba deux mille soixante war a guñ fa. gis nga siin nam gëmmee jàpp ne Amérique moom mos a yor mbir mi pendant tant d'années daanaka sax ay Afrique du Sud ñoo leen dépassé woon yeneen dëkk yi ñu ne ci cinquante ans war nañoo mën def la ñu war a def bu jël paie tey bu ñu jëluñ paie ñuy de Macky Sall ba président Macky Sall ba muy ñëw comme ni ma la wax rek gis nga loo fii defar ci réew mi ingénieur a koy defar fii ñu toog ñii bâtiment bi ñu toog soo ko doon tabax ay ingénieur ngay woo ay architecte ay leneen ak leneen ak leneen. ñu xam doo si danaa leen woo yéen koy wax ni waaw ah. waaw non leen woo ingénieur et ingénieur. Ah. ingénieur. Hmm. Ah. non non ñaari ah. hmm. dama leen bu ma xalaat yi hmm. ko dama ko bëgg a xamal rek. ci ci li waral. Euh, liggéey bi président Macky Sall def parce que dafa dafa am yeneen priorité. xam nga su fekkee ne yow da toog di xalaat dara bëgg ki kii mer mbala bëgg a mbégal waa Dakar kese mbala yoonu port bi bàyyi sénégalais ba nga xam ne mu ngi dëkk moom Médina Yoro la Mhm. moom aussi mu bokk ci. Mhm. doo am vision boobu solo de. muy benn ah. doo am vision boobu. yoonu am na solo. comprendre nga jël nga jël président Macky Sall comme li ma la wax ingénieur la quand on dit ingénieur ingénieur la c'est-à-dire. ingénieur ci lan. ingénieur des sciences vie et de la terre. Ah, ingénieur nag xaarma rek xaarma rek non dama non may ma rek dama lay wax mbiru ah, ingénieur xaarma sax boo ko joxee wàllu courant di liggéey dana ko liggéey parce que da koy jàng bu dee jàng xam nga li ma ah, la wax soo déggee rek day transversal mu xam fu pétrole bi ak gaz bi nekk moo tax mu xam ko moo tax mu génnee ko 25 point 2 le le point 25 point 2 du référendum les ressources naturelles pour peuple dama ne frère am rek lañ ci dégg déglu ma rek dana xool xam nga waxagoo ci man danaa fi ñëw dama la ñaan rek voilà donc nga ñëw ci moom hmm. terre boobu mu xelaat terre am na feneen am na ci yeneen dëkk Nigéria ay engagement yu mu jëloon la bi ñuy def Sénégal moo gën bu Nigéria bi ay engagement yu mu jëloon la jàpp ne Sénégal war naa jomb loolu mu entamé ko xaalis bi mu dem wëri ko tey ñu démarré ko 2019 mu jox leen ko muy benn nga jël ci wàllu yoon yi ngay wax ci wàllu yoon yooyu yaakaar naa ku xam président Macky Sall xam nga ne def na ay yoon comme ni kii wax dayul mu ngi ci projet yaa ngi fi contrat yi signé mu ngi en phase ci français yi déglu ma non xam nga mbir mi amul français amul espagnol damal ne rek maanaam yoon boobu yow bu ñu la ko joxoon mënoo ko def kenn duñ ko joxoon jàngoo ko bala keneen jàng ko yoon yi sénégalais ya fi ne xam nga mbir mi nañ bàyyi mbiru colonisation amu fi tey yaakaar naa tey yow boo doon dem màkk ci avion français ngay dugg wala ci avion espagnol yi Sénégal defaragul avion gis nga nit ki da nga koy nangul lam mën gis nga entreprise sénégalais yooyu ay entreprise yu baax lañ fañ toll seen doole ñu ngi liggéey mais gis nga yoonu Kaolack bi tey ku ko xool bala nga xooloon yeneen yoon yi liggéey bon yaa ngi fii gis ngay gis tey ñu liggéey benn yoon bala ñu def benn dara mu yàqu Macky Sall tey ay Macky Sall ay normes internationales lay respecté boo jëlee tey autoroute yi ngay gis yoon yi ngay gis balaa gars yi bu ñuy tàmbalee li ngay njëkk def mooy dégg nga appel d'offre lancé nañ ko bureau contrôle gagné na ko muy x ou di y comme la mais ay bëgg naa man lu ma neex waa waa euh, waa taxaw Ndakaaru mbala waa mbala taxaw Sénégal danaa jël marché bi ma jox ko sëñ bii mënu ko réaliser parce que pour faire plaire au Sénégal. Seer ña ARMP. ñëpp gis nañu yokkal ko mandaam. ci man waxuma la ay yokkal. may waxal norme war a surveiller norme yi ñu def lu normul. dama ne man a xoolal hmm. ña. of nag ñu woo ñu dàq waa ji. Mbacke Mbacke dama la. du mooy si du mooy surveiller ay sànce ay contrat lam président Macky Sall ba mu ñëwee daf ne engagement yam jël si juróomi at wala si juróom-ñaari at wala ci mandaam yam jël du ci ay ay ay toog fi ay appel d'offre yi def fukki at moo koy réaliser loolu ña fi tardé yëpp loolu moo leen tardé li ma la gis nga ingénieur pratique la xam xamul ay affaire théorie toog rek tëju ci benn benn néeg di wax wax wax discours comme ni ngeen def su ngeen tàmbalee téye alxuraan bi di ko verset di ngeen ko jëfee gis nga waxtaan wax dëgg ca la gis nga ma ñëwaat si Khalifa Sall mi nga wax tëj boo waxee président del Khalifa Sall ah, bu jëfee woon ah, la président Macky Sall jëfee yaakaar na kenn di ko teg mooy lan ba waa PDS buggee jàpp président Macky Sall dañ ko commissariat urbain lëñte lëñte lëñte lijjanti lijjanti dugg xool di nga mbir policier xool hmm? bàyyi ma àggali non bàyyi ma àggali non non bàyyi non non non non bàyyi dem àggali waaw waaw waaw may ma rek non non man non man dama ne sëñ bi dama xoolal man waxuma ko Pape Alé Niang man sama wax laay wax ne biñ ko wooyee daal déglu nañ ko pendant des heures xool lijjanti gauche a droite fu nekk ñu lijjanti. waaye xa xarma waaye le maire Dakar. Mm-hmm. waaye moom yow sa bopp yow yaa nangu ne def na waaye am na ñu ko doon def waaye force reste à la loi xam lu doon gën a neex jàpp nañ ko xool nañ mbir mi sàccul deful waaye nag léegi nag dañ ko jaay doole dañ ko jàpp. loolu am may non déedéet yow nee nga lam def am na ñu ko jiitoon ñu ko def. dama ne yàlla sa xoolal sëñ bi. xam nga man ci say wax laay tontu dama la déglu nga ne euh, maire Dakar bi Khalifa Sall dañ ko jàpp mhm. waaye lañ ko jàppee am na ñeneen ñu ko defoon parce que dafa génn p du loolu nga wax waaye nga ne lam def ñeneen ñi ko defoon man waxuma ko ñooñu de comme waxu Khalifa Sall ngeen fi wax maire meeru Dakar moom waroon na mën a fexe rek ba du def comme mu ngi aspirer pour yor Sénégal même rek pour jiite Sénégal yaakaar naa un président de la République warul doon ka nga xam ne dañ lay dënk benn dëkk lu ci mel ni commune Ndakaaru ngay jël la ca ne mu jox ci Abdou Mbow mu jox ci keneen man sama yoon newu ci dama leen rek bu fekkoon ne moom serment xam na li koy xaar ci réew mi xam na li koy xaar liñ tax ñu dénk ko waroon na mën a am moral am engagement am loyauté ak ku mënoon toog même Nations Unies buñ ne ko woon parce que président Macky Sall laa la wax li Khalifa Sall def buñ ko defoon laa la wax du doon candidat ba muy jiite réew mi dama la rek xam nga temps yi bañ koy jàpp di ko baax wala di ko kii yeeg muy créer partem Idriss Seck ba mu génnee jàpp nañ ko def na defut xam nga li si justice bi wax man loolu laa waaye président Macky na fu mu tolloon xamoon na ne waa ji mooy jël réew mi parce que ñëpp ñu moom bu fekkoon ne am na fenn fu mu ko mënoon keppee dana ko fa kepp dafa xool gisul dara zéro faute ma ñëwaat nee nga famille am ci wàllu pétrole ak yooyu mais dama mais lenn laa diñ famille diñ xaaral maa ne diñ famille la am mhm. li tax ma ne la diñ famille nga ba mu wàccee aéroport xamoo ndaw si xamoo sëriñ bi ndaw soosu sénégalaise la muy la première dame juddoo Sénégal màggee Sénégal yaroo Sénégal xam li Sénégal yi di dund nga xool tey ci wàllu euh, li li ñi di dund ni méttee nga gis tey yaakaar naa fondation Servir le Sénégal moom fondation bi wuute na ak fondation ya fi nekkoon fondation ba nga xam ne yow da nga ko créé non non non non may dama ne si inter non non non non non man waxuma la non fondation non dama ne dama ne gis nañ ci fondation ba nga xam ne waaw si si dama ne gis nañ ci fondation ba nga xam ne qu'on se dise la vérité bay nangu caabi bay nangu caabi ay hôpitaux ana njëriñu askan wi ci rek tontu mu ndaw rek xam nga ci kaaw Khalifa Sall hmm. waaw IGE dafa def fukki weer ak juróom-ñett c'était la deuxième fois muy intervenir dans la communauté urbaine deuxième fois ci mbir mi ci kees bi ba mu amee bu njëkk 97 Abdou Diouf dafa arbitré wax bàyyi leen kees googu foofu mu doxee noonu. dafa yoon. IGE ñaari question la laaj Khalifa Sall. dafa arbitré ah. dafa arbitré laaj. autrement ah, dit dafa jël une décision d'autorité 97 qu'on peut vérifier qu'on peut vérifier qui sont là en 97 période communauté urbaine de Dakar. de conflit s'étaient opposés ci élimination d'un adversaire politique il y avait le même Tanor encore et Mamadou Diop voulant éliminer Mamadou Diop on lui envoie l'IGE à la communauté urbaine pour casser ko Abdou Diouf xam njëriñu kees boobu ni leen bàyyi leen ko noonu mu fonctionner dans les mêmes conditions IGE bi mu ñëwee Dakar xam nga lu mu laaj Khalifa sur vingt trois points mm-hmm. après dix huit mois dem dellu si demaat dellu si ka ko doon def mooy rapport bi mooy secrétaire général u HCCT aujourd'hui nekk bras droit wu Tanor donc suspicion am na fa conflit d'intérêt am na fa dañ ko laaj les conditions de création et de fonctionnement de cette caisse qu'il naa ni créé ni édicté le fonctionnement du moom moo ko taxawal du moom moo wax ñii lay doxee fonctionnaire yañ ko jàppandool ku ci ne def nga ñetti mandat mairie Dakar du xalifa moo leen indi du falu leen recruté wu leen ñetti mandat ña nga fa depuis temps wu Mamadou Diop Mbaye Touré ma ne Modou Diop ma nga fa ah? madame madame euh, la dame qui doit qui doit même aller en retraite elle a fait trente ans au même poste et c'est des inspecteurs du trésor ñoom ñooy nekk ñoo nekk ñoo nekk percepteur municipal duñu def lu loi bi di tere parce que xam nañu mais adversaire politique le président Macky Sall dagg bopp bi et il l'avait dit il avait dit je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression c'est moo wax man li may wax Diop damay génne le président wax lu APR wax le da ngeen siis doo leen cotiser mm. da ko ci làmmiñu boppam da ngeen fuuy parce que da ngeen am xaalis léegi moo ko génn ci loon làmmiñu boppam la patrie avant le parti moo ko génn ci làmmiñu boppam moo fëgg dënnam wax je suis le président de la république mel ni lui-même il en doutait dem dikk marron beige d'accord le mandat je vais je vais réduire le mandat ma l'appliquer sur ce mandat cours moom moo ko wax c'est-à-dire ñun waxantu politiciens yi dañuy topp discours président yi rek benn benn et puis nga génn ci argument yooyu mhm. ñu dem référendum mu wax il faut moderniser le rôle des partis politiques mhm. yëngatuwul benn yoon daf ci benn jéego assemblée nationale mooy nommé juróom ñaari juge yi juróom-ñaar yow nga nommé président assemblée nationale bala muy nommé entériné ko il faut muy revenir vers toi donc moom dafa jëlaat juróom-ñaari juge yi ko boppam mhm. donc loolu ñuy dund en ce moment mhm. te gis nañ ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda Diallo lors du référendum mu war a arbitrer moom mooy joxe résultat yi mu war a arbitrer mooy démarché maire taxawu Ndakaaru mu war a arbitrer moom mooy def porte à porte parcelle Assainies ay président defee lu Abdou Diouf deful Abdoulaye Wade deful da di fëgg dënn wax ko mais régime yooyu bañ fiy ne bu opposition waxee nañu changer ministre de l'intérieur dañuy andil benn général mu gérer élection yi Diop yaa ngi fi woon mm-hmm. bii bi ñu ne bëgguñu Abdoulaye Daouda Diallo ba ngeen laal ko rek la wax mm-hmm. voilà léegi euh, euh, ci dernier tour de table bi euh, ñu ñëwaat encore ci benn biir boo xamante ni itam nag bu fekkee élection yi moom ni ko nit ñi yaakaar dina am am na dina xaw a jaaxal nit ñi mooy 47 listes yi euh, ñu ne ban taabal lañ koy teg ñi ne fuñ koy ñu def ko taayu carte euh, mariage bi xam ndax loolu du gën a arrangé nit ki téye ko ci loxoom ñi ne nañ boolee 47 listes yi ci benn bloc teg ko fa ku ñëw boobu yóbbu tànn bi nga soxla ñi ne nañ yóbbu 47 listes yi ci biir isoloir yi ku dem tànn bàyyi fa la ca des yooyu yëpp nag biñ ko indee itam ku ci ne am nga ci sa tiitaange ku ci ne am nga fa wóolu am fa wóoluwut eh, yow foo gis ne yow nit waroon na mën a xalaat. bu APR amul tiitaange man dégg ma dañ ciy kaas. Hmm? APR amul ci loolu. Hmm. xëy na ñoom li Abdoulaye Daouda Diallo def lay defaat rek. c'est-à-dire lu mu métti métti métti. say say say candidat jox leen kaar ba ba ñu tay lu mu yàgg yàgg yàgg jox ko leen moyen pour ñu mën a voter ba pare. Hmm. fexe nga ba bulletin wu coalition bi euh, benn bokk yaakaar doon couleur boo xam ne day ràññeeku par rapport ak ñeneen ba ku ñëw rek day fës ci yow moo tax xëy na dégg dégg mu ñuy coow alors que lii ñoom ñoo ci war a wax parce que ñoo ko war a xam nga ko daal sànq gouverner c'est prévoir mais du yoon Sénégal toll fii à un mois des élections ñu naan naka la ñuy doxalee élection bi xanaa nekkuñu ci état ñiy fayee ku nekk autour du président xanaa ñoom duñu liggéey ci loi bi avant moo tax man assemblée nationale liggéeyul. assemblée nationale liggéeyul parce que problème réew duñ ci wax bu buñ ci dorante kurpeñ buñ ci saagante affaire u falu la maay nekk président euh, euh, cour parlementaire maay lii maay lee mais lii duñu ci wax mais problème député ñoo ci war a wax. li ñuy wax député ñoo ci war a jëkk jog def enquête def ay proposition nee na schéma bi am na dañu voté deux jours na nañu yokk dañu indi ay làmp ba bu guddee ñu mën a continuer ba vingt deux heures nañu lii nañu lee nañu jël extra. mais man dégg dégg dégg ñu wax ci. lan ci wax. alors seen responsabilité la. lii échec la toog ba un mois des élections ne naka la ñuy voté loolu mosul am Sénégal. mosul am Ibrahima Diop parce que tey mel na ni am na ku manqué wala lu manqué loo xamante ne tey pour nga dabb ko aussi am na ñu jàpp ne daal dina xaw a jafe ci voté boobu ak ni ñu ko fas yéene bon disons que ci approche bi doy na waar. ci doxalin bi quoi ni ñu jëlee mbir mi doy na waar. Euh, xëy na acteurs yi aussi seen position doy na waar ci approche bi li tax mu doy waar mooy que gouvernement ci li ma gis mu teg ko ci taabal ci ak li mu ko tegee ci taabal ji proposition formulé wul benn proposition buy anticiper situation yi dafa bàyyi acteurs yi ak seen responsabilité maanaam da leen bàyyi ak seen bopp bo loolu format la format de gestion la nga bàyyi acteurs yi ak seen propre volonté seen yëfu bopp ñoom ñu waxtaan ci seen biir génne mais il faudrait tamit pour que loolu nekk nga créer conditions yi nit ñi di waxtaani mais seetlu naa aussi ci li ma gis mooy que yenn saa yi am na waxtaan yoo xam ne yaa fay nekk bu ñu toogee seen kur seen wax ju tàng dina tax ak seen tàngaay ñoom dina tax que benn jour ministre bi sax dafa jóg dem daal di tëj séance bi mais est-ce cadre bu may cadre bi hmm. am na sérénité hmm. am na dal goo xam ne nit ñi tamit est-ce que am nañu dal goo xam ne dinañ toog déglunte waxtaan ca intérêt réew bi kese tax leen a jóg parce que bu leen intérêt réew mi rek taxee jóg muy parti gouvernement comme parti opposition dañ am consensus loolu mooy di am hmm. ñaareelu poñ bi mooy que ñun ñooy wote maanaam ah, sëñ Mbacke Seck bu doon moom kese kese kese ak listam du nekk député ñun citoyen ordinaire yi comme ni ñuy woowee hmm. ñun ñoo koy voter gis naa ni capacité bi mu am pour perturbé sëñ Samba ci waxtaan wi nii <laughs> ah, capacité boobu la ñu soxla soxla nañ ko lool ci parlementaire dëgg dafay am talent waaye na na orienté talent bi ci li nga xam ne dafay jariñ réew mi yëpp vraiment si bu fekkoon ne mën na ko def dina baax lool. ñu am assemblée xam ne daal pour ñu am mm-hmm. benn assemblée boo xam ne des mm-hmm. parce que ñooñu mm-hmm. ñoom ñi nga xam ne ñoo am talent yooyu dañoo war a am gis-gis boo xam ne seen xool dina ubbeeku ci réew mi yëpp. Mm, ko defee et ça mm. c' est ce qui fait défaut. Mm. aujourd'hui à nos parlementaires et suñuy député ñu nekk ci pouvoir bi surtout aussi ñu nekk ci opposition bi ci façon bi nga xam ne moom la ñuy doxee. ak moom la ñuy waajalee élection yi. te ñu leen di xamal ni en fait ñun de ci suñu gis-gis. suñu jëm ci kanam moo ñu gënal lu ñu mën a am. même seen nguur gi nga xam ne moom lañ leen nar a moom lañ leen nar a jóg mais li ci wax yokk une seconde rek mm-hmm. ñun aussi intellectuel am na ci responsabilité intellectuelle mm-hmm. waruñu bàyyi lépp doo parce que intellectuel ak diplômé du benn mm-hmm. intellectuel mooy ku am fit wax dëgg buñ defee lu baax waxal buñ defee safaan aussi wax waxal xam xam lay au lieu nga nekk intellectuel voilà waaw Mbacké Seck euh, Ousmane jërëjëf mm. man ci turu Manko Taxawu Sénégal dañuy dénoncer rek fitna yi nga xam ni sénégal yi ñu ngi ko dund ci processus électoral bu méttee nii fajar la mag ñi di jóg ba ñu wutal leen bés mu metti ba ñu wutal leen bés walla leen di fàttaliku ba ñuy tàmbali carte carte biométrique yi am na dese ci rang yi fitna boobu ci mbinduma ma fitna ci jëli ba fitna ci xool fan la sa carte ne après ñaari fitna des muy fitna ci nu ñuy organiser vote bi ak fitna ñaata waxtu laay def ci centre de vote bi te xam nañ ni mag ñi dañuy teel dañuy julli ji fajar rek dem wote soog a ñibbi coono boobu ci fukki bulletin ak juróom-ñaar mitti na te fitna bi dafa law bu ñuy def recrue recrutement de larme boo xoolee xale yi ni ñuy dawee ak nu ñuy toppantee pour rien que am fu ñu làqatu ñaari at durée légale moo lay wan ni coono am na ci réew mi pour recruter ASP ñuy fanaan di toppante dëkk par dëkk parce que amuñu beneen alternative moo lay wan ni coono am na ci dëkk bi yéen gëstukat yi gis ngeen ni yónnee xaalis bi ni mu amee solo def Sénégal léegi diggante fukki waxtu dix heures dix heures si la agence yooyu di yónnee xaalis si nañuy am activité bu bari parce que nit ñi dañuy xëy dawi dépense après yónnee diggante ñaar téeméer ak junni diggante centre ville ba ak tëkk dëkk yu métti yi loolu wane rek moo nami sàmba émergence boobu ñuy wax ñun fitna lañ koy dund fu mu ne nii mm-hmm, kii nee na depuis fukki at ak juróom benn fu ñàkk ndox la nekk mm-hmm. ñeneen ñàkk courant la ñuy dund fan yi donc ñun ñu ngi bëgg rek élection yi ñu jëm ñu am député yu nga xam ni bu tànn li gën ci askan wi taxawee mm-hmm. coup de bu mënti jóge présidence parce que gis na Idrissa mi ngay tudd gis nañu mu nekk assemblée ñu woo ko dégg nañ député opposition yi ni premier ministre yi jaaree assemblée ñu ni jaadool du ñu sax wax ba boo leen waxee dañ lay wax le travail se fait en commission mais comment en commission mm-hmm. donc ñun bëgg nañu am assemblée de rupture mm-hmm. buy déglu peuple bi mm-hmm. assemblée bu nga xam ni mais mainmise du président du am solo noonu trop parce que rayante nañu pour mbind mi pour bind pour ñu bind ma mhm. léegi rayante pour place yu neex ya nekk assemblée ak naka lañuy fexee ba yóbbu ma parlement CEDEAO nan laay def ba nan laay def ba yore commission pour rang des ministres mhm. loolooy rayante bi mujj mhm. et sur cent cinquante députés cent cent soixante cinq yi ñu war a fal def leen ci liste cent quinze yi ci benn parti la jóge ban xeetu alliance la loolu léegi Samba waaw ñu jeexal ngir jeexal waaw waxtu bi. waxtu bi moo ñu def xaaral Samba placé quelques mots après ñu terminer ak yow rapidement waaw. man li ma koy wax mooy. Mhm. Mhm. Samba bu ma tontu. li ma koy wax mooy sëñ Ba kii laay wax parce que daf ne. Ousmane Ibrahima Diop Ibrahima sëñ Ibrahima Ousmane bu ma tontu. nee na Ibrahima lay tontu bu mu wax lii. talent bi mu am ba mën a mhm. perturber Samba Sall pour man du talent. du question talent te perturber wu ma. problème mooy dama kaa gën a tey di ko déglu. muy benn ñaareel bi bu ñëwee ci list yi ci eh, investir yi di di di di di expliquer nit ñi nga wax li am quarante cinq liste yooyu dama lay wax li ko waral ñoom seen bopp taxawu ak ñoom ku jegi lay wax trahison bi ñu def par rapport ak la sénégalais yi doon xaar ci ñoom parce que bañ jógee dañ ñëwoon benn liste la ñuy def liste benn bokk yaakaar def benn liste yaakaar naa mu doon ñaar déjà plus peut-être quelques indépendants boo ko compté du weesu ñett ak ñeent bañ demee bu ci biir oto yu neex yooyu muy wax eh, téléphone yooyu ak carburant bi jaral leen non non tuddu nga ko boo ko fi am na keneen ku ko tudd <laughs> dama dama la rek jaral leen ñoom nanguwuñ ku ci nekk jiite xam naa nag ku ci mel ni président Idrissa Seck namm na nguur namm na aussi ñëwaat non si dama koy tudd parce que di la réalité déglu ma rek namm nañ nguur kenn si ñoom nanguwul bàyyi keneen ki jiite moom doon la jëfee non noonu non xool xool may ma rek ma ma àggal <laughs> xam nga xam nga xam nga bu fekkoon ne ñoom la ñuy wax mm-hmm. fu ma ko doon mën a dégloo ma nangul ko lu mu wax mm-hmm. fekk ba ma jàkkaarloo moom benn liste lañ indi mm-hmm. comme la ma xoon bu boobaa dana neex a déglu waaye ñoom bañ tàmbalee seen investir kii de maa jiital ku ci nekk si ñoom bëgg na am rang wu président groupe parlementaire moo waral déggoo bi amul seen biir donc nag charité bien ordonnée commence par soi-même muy benn mm. donc ñoom amuñ benn leçon mm. bu ñuy jox je pense coalition Benno Bokk Yaakaar ña fa nekk mm. coalition Benno Bokk Yaakaar c'est la première fois dans l'histoire wax naa ay mag ñooñu ngay wax mag ñooñu ku ci mel ni Tanor Dieng pour man ñëpp dañ ko war a saluer bu doon xaalis dong mbala ACTT dong da doon fekk mu ngi ci nguur wadd gi mbaa ci beneen nguur amul luñ ko proposé wu ci àdduna mu bañ mu lank fam lank kii nag ba mu ñëwee am lu mu wax seen kanam mu ñëw gan jëfee ko te gis nga président Macky Sall ngoram ak sàmm kàddoom moo ko gën a lu ne gis nga xaaral xiiroo yeeg ŋaayoo yeeg siisante bi di ngay wax li tax mu koy wax day défendre ay alliés parce que aussi du d'accord ne mu ngi mel yow sa kër tey mhm. da nga am jànq boo jël moo la gën a jege waaye bu fekkee ne yow borom kër gu responsable nga da nga yemale sa doom bi nga xamal ko ne ñëpp a yem d'accord non si dama na ko jàpp sàcc bàyyi kee gis nga kee xaar ma rek kii xam nga argument yi des na mais waxtu bi nga xalifa ah. xalifa la sàccee bu hmm. sàcc li la sàccee bu sàccee ci nguuram la koy sanctionné prescription moom lañ am prescription bàyyi leen léegi dans boobu tamit en fait ñun suñu point de vue en tant que citoyen et patriote mhm. laaju ñu ñu ko parce que suñu point de vue mooy que bu ko kenn defati te ku ko def dañ la war a sanctionner mhm. d'accord réew dañ koy tek ci ay règles yu wóor d'accord loolu mooy transparence Ibrahima Diop sociologue maa ngi lay gërëm di la sant Samba Sall APR di la gërëm di la sant Mbacke Sell. sama orange vert ah? sama orange vert bi vert bi ci écran mag bi du feeñ bële. <laughs> du feeñ bële. lii lii maa ngi lay gërëm di la sant Roselyne di gërëm di sant El Hadj Mamadou Diouf mi ñu féete woon ci bu baax Oustaz Assane Diouf mi nga xam moo ñu réalisé émission bi di gërëm di sant bu baax nag ñu daan teewlu ci beneen numéro Diine ak Jamono incha allah wasalaam. jërë